jaaree beneen buntu dem waaye gis nga képp kuy dox yi fi caaxaan yi ak ku mën a doon muy Amadou mii la wala keneen la wala ñi doon sos fen yii yëpp bam actif yi ma wax la ko tey ku mën a tey ñëw bu ko mag Macky tegut ci yoon ku ñëw dina ko teg ci yoon mm-hmm. duñ dund Afrique boo xam ne yàqante sos kàcc fen ñu ne dañuy tabax réew dañuy tabax dëkk mën ta nekk dañu waxante dëgg seen mbokk fii ci Gambie bi ma doon Bachir. merci beaucoup merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sama sët boobu fële doon ootee foofu la ca douane ak Gambia 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 amee partagé live bi ah, li ñuy waxtaan tey bokk na ci recours yi nga xamante ni tàmbali nañ ko ni ki tey jëlee foofee ah, ca conseil constitutionnel candidat yi nga xamante ni recalé nañu euh, euh, maanaam recalé nañu ñu ngay def. Ah, ay recours foofulee euh, kii di euh, euh, Tass moom aussi jamono ju ñu toll nii nee na day def recours ngir kii di Karim Wade bañ a bokk ci élection yi ndax jàpp na ni warul bokk ci élection yi ndax double nationalité bi nga xamante ni yor na ko Serigne Mboup maa ngi koy daal di jàppale ci loolee ginnaaw loolee tamit gis nañu yeneen recours yi nga xamante ma ngay waa a juddu ca Benno Bokk Yaakaar seen candidat di Amadou Ba nee nañ moo ko daal di jiite suñu sukkandikoo ci journal bés bi ñi ngi xam ne ni daal ñoom it dinañ def recours jëmale ko ci Bassirou Diomaye Faye ndax jàpp nañu daal euh, moom Bassirou Diomaye Faye warut a bokk ci yële élection bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar mbokk mi di la jaajëfal bu baax a baax. waaw ñu ngi lay delloo ah tur bi fanatique numéro 3 rek wala Moussalimi Junior léegi jël Moussalimi Junior Moussalimi Junior booboo baax. d'accord ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw léegi euh, mais dama bëggoon wax si si si sujet yi. d'accord ñu ngi lay déglu loolu laataa loolu damay damay defe na waraate bu gaaw rek. xam nga mag mhm. day wax dëgg quoi. dafa gaaw à tout moment mel na la ñoo fekk la nga seet guy toog. ñun la ñun la ñu ni ah kii dee na mais mm-hmm. Mm-hmm. ñëw toog di wax yow au fond de toi tu sais li ngay wax yëpp c'est faux amul dara amul ba pare di tooñ ay nit mu sell mi na nga mën a ñëw fi naan noo waaye xamul lu mu di di di di gaarawaale di naan Sonko di saltel naan non li mu li mu teg yéen moo ko teg boppam xawma lan expliqué di wax ay waxu système te système maîtrisé woo ko sax mu ngi wax naa mille neuf cent soixante la bi commencé système bi depuis époque coloniale la ba tey loolu lañ fa bëgg a génnee maanaam domination bu tubaab bi di dominer peuple africain yi loolu la ñuy waxee système système du parce que parti bi la bokk wala parti bi laa bokk doxalin la ak ak ak ak dëkk bi nag nag dëkk bi dafa nekk dëkk bu autonome la wala dëkk boo xam ni euh, dañoo tënk économiquement culturellement lépp te lépp xam nañ ni culturellement économiquement sur tous les plans tubaab yi ñoo ñoo teg seen lépp suñ ba suñu langue suñu langue sax langue langue officielle bi c'est la langue française donc bu noo ñëw fii toog fii di fi wax ay waxu dof ay waxu système te maîtriser wu système bi Pérez ñëpp xam nañ c'est le système te comme li yow li nga wax rek c'est vrai ab APR ak Pérez ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ne ak baay daf kii dafa juddu mois de janvier kii juddu mois de décembre ñoo bokk nekk bàyyi ay magaraka nañ donc il faut pas venir ici def semblant ni non pas PDS opposition nañ bokk fii ñëpp a gis nañ position PDS PDS ils sont pas constants seen intérêt bopp rek nañ fi nekkal si waawu Abdoulaye Wade nañ nekk Abdoulaye Wade mu fi nekkee yow yaa moom mi tontu na boppam moo fi doon wax euh, demoon na jël euh, port beeg jël aéroport beeg lépp joxu naar yi suñ continuer waatoon encore dëkk bi yëpp naar bi naaree la koy jox yow ku dem ba jël sa dëkk di ko jox ay naar war ko gérer sa bopp comme la Mali actuellement le gars daa ñëw euh, Assimi Goïta daa ñëw jël oram bi daf ko jël créer société nationale or bi jox jox waa société nationale seen dëkk ñoom ñu koy gérer. Mhm. loolu mooy dëkk bu indépendant. beneen mhm. saa da wax dëgg quoi nit. nit du ay weccit wala ay privilège wala ay poste moo tax ngay ñëw fii di wax ay waxu doof parce que gis nga fen yooyu ngay fen noonu noonu noonu fen boo fen rek malaaka yi da koy calculer si balance la de bàyyi leen fen fen fen mooy loolu de ah, te ngir yàlla bu leen Ousmane Sonko ko donc ko donc fu mu ko teg ak Sénégal dafa donc fu mu ko teg donc mën na leen ñëw di wax ay bassesse ak manqué respect ku tedd kooku noonu kooku lu coono coono yi sénégalais yi di dund nii waaye daf ñu say bëgg a génnee te kooku dafa am yërmande waaye am yërmande mooy noonu parce que gis na ay milliards ñu tegal ko nii ay millions kii wax na ko boppam euh, le gars là le vieux Serigne Mboup ñëw na fi ne proposé nañ ko xaalis pour mu ñëw xama su kii ko su doyee ko nii waa ji encaissé wul weccit bi xam nga proposé ko heure ndogu jot ñu proposé ko ndogu laalul ndogu bi mu ne moom day dem naani café si mbedd mi pour ñëw contrôler euh, yeggali contrôle am et tout Sonko dañ ko war a respecté Sonko ku màgg la si taan bi Sonko saaru nit yi waaye di rek ñoo ko bañ ak sëriñ yooyu yenn sëriñ yi nii ak parce que seen privilège ni ñuy sóor sóoraale leen yombal xiyaam man maa ngi wax di jaxase koo sax mais sóoraale leen yombal xiyaam Sonko ku tedd la kooku man kooku instant bu gars yi bu ñu ko manoon def sëriñ si taan bi sax billaahi naa nangu parce que kooku noonu ram fu ñu yóbbu waaye dañu bëgg a sauver ngir yàlla war a suuli respecté leen Sonko quoi. d'accord bu leen mënul ànd ak personnel. Uh-huh. il faut quoi. Mm. léegi vite fait rek si wàllum Diomaye Faye bi. xam mm-hmm. waa APR ñoom tamit dañ ñàkk a jom ay mag yi ñàkk a nañ mais je les comprends parce que bu muy muy Diomaye muy Sonko ku si yéeg ñoom ñëpp kaso ba nañ jëm parce que suñu alal yi ñuy sàcc nii nii. pont Covid beeg scandale yeeg booy ñuy rey si mbedd mi nii paa yi topp paa sëriñ yi ñoo xam ne ñoom lañ àndal war wax si loolu waxuñu si ñoom ñoo ils vont ils vont rendre compte loolu laa laa moom li ma wax. merci beaucoup. ñu ngi lay jaajëf merci beaucoup. 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 waaw aimé partage live bi boog na live bi yeeg na na jóg su ko defee waxtaan bi gën a gën a gën a mën a yaatu nit yi gën a mën a dugg wax seen xalaat Ibrahima maa ngi lay nuyu bu baax a baax Mariama Goudiaby ñu ngi lay jaajëfal seen yow tamit ñu ngi lay nuyu Abib euh, Diallo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Patriote Sow Serigne Modou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. allo. na nga def. maa ngi fi alhamdulilah am sëñ bi tur beeg fooy wootee. maa ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm Pape Demba Italie. Pape ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. sant yàlla bu baax damay laaj thème bi lan la balaa may dugg ci lu ma war a dugg wala ma wax lu ma war a wax. d'accord euh, li ñuy waxtaanee tey euh, bokk na ci recours euh, yi nga xamante ni tàmbali nañ ko def ni ki tey jile foofee ca conseil constitutionnel ñi nga xamante ni ay candidats lañ woon te jàlluñu ci parrainage bi tey la ñuy def seen ay recours Benno Bokk Yaakaar nee nañ seenu njiit wala seenu candidat di Amadou Ba jamono ji ñu toll nii suñu sukkandikoo ci journal bés bi le jour moom mi nga xam dugal ab recours ngir di sàkku euh, kii di Bassirou Diomaye Faye moom it daal di bañ a jàll ci li nga xamante ni euh, mooy list bi war a génn ñu nar a xam euh, dëgg-dëgg ñan ñoo war a daal di dem ci présidentielle 2024 boobu ñu dëtmal nee nañ waa Benno Bokk Yaakaar jamono juñ toll nii ña ngay waaj a déposer ab recours ngir Bassirou Diomaye Faye bañ a bokk ci élection yi tas muy Thierno Alassane Sall jamono juñ toll nii moom it taxaw na tem ngir Karim Wade mo it ñu génne ko ci élection yi ndax jàpp na bi mu am mu daal di mën a nekk candidat bay bokk ci élection yi lii la ñuy waxtaanee euh, Pape euh, ba ban euh, gis-gis nga ci am. waaw léegi. Mhm. Amadou Ba mooy dugal recours. waaw Benno Bokk Yaakaar. waaw mais lu tax candidat yi duñ dugal Amadou recours na ko Pël Fuuta la. warul <laughs> jiite Sénégal non loolu est-ce que du ay ay ay kii tamit ay. non mais mais kon moom lan lay toppee Bassirou Diomaye Faye Eh, lan la Bassirou Diomaye Faye dafa am dañ ko tëj wala dañ ko def dara wala wala lan ah, lan la koy ah, toppee ñoom détail détaillé wuñu carrément lan moo tax ndax Bassirou am dañu ruubee définitive ruubee xam nga ruubee xam nga nit kuy ruubee mm-hmm. nit kuy ruubee léegi wàcc nañu si Sonko si Bassirou leen jëm mm-hmm. parce que lu ñu leen ne Bassirou mooy Sonko Sonko mooy Bassirou moo tax ñu jëm si Bassirou mm-hmm. mais ni ñu koy jaar li ñu dañ ko tëj dafa am peine dañ ko àtte dafa sàcc dafa fen dafa am double nationalité mais nit ki boo koy topp da ngay wax agrément bi nga koy toppee xam nga maa ngi naan Pël Fuuta nga ne ma non non non mais loolu mun nañ ko ko wax loolu pour ruubee rek mun nañ ne moom Pël Fuuta la pour déposer recours c'est que sénégalais ñun ñun sénégalais yi ñun ñooy tardé si loo xam ni amul sens parce que ñoom xam nañ li ñuy def amul benn sens xam ne lu ñuy def du mujj fen ñoom bu ñu ko doon écarté si parrainage bi lañ koy écarté mënuñu ko jéem nañu ba sonn mënuñu ko. ba pare léegi ñoo ngi indiwaat yeneen soxna si. Mm-hmm. xam nga senegal lu ko yàq est-ce que xam nga tëdd muy dox yeewu muy naaw. Mm-hmm. seen réew moomu tëdd muy dox dulul ay liggéey liggéeykat tëdd muy dox yeewu muy naaw dangay xam dangay gis ku tëdd ba cinq heures jóg ne looy liggéey bi ne businessman laa. Mm-hmm. business liggéey la. business mooy sàcc. fii mosoo fee gis fii doo fi dëgg benn tubaab mu ne la businessman laa amul benn tubaab naan businessman laa Sénégal rek ngay dégg ñu ne la xaalis kenn du ko liggéey dañ koy liggéenti mooy mooy looy liggéenti looy loo dem ba liggéenti da kaa sàcc. léegi nag ñoom seen problème mooy dañ yaakaar ne ñëpp na ñoom nañu mel Sénégal boo jubadee da ngay yaakaar ne ñëpp dañoo jubadi fi mu ne nii dañuy dajale xaalis sax ñu ne waaw waa Pastef xaalisu terroriste la ndax xaalis bi ñun ñoo ko ñàkk. man mii damay cotiser mais damaa ñàkk sama alal man damay liggéey damay wàcc tubaab bi fii dërëm boo dugal yónnee ko Sénégal sax dina xam dërëm bii fu kan nga ko yónnee ak lu tax. Mm-hmm. mais lu tax man li ma jaaxal mooy ñi jiite Sénégal lu tax bëgguñu Sénégal avancé. Mm-hmm. mais soxna si yow da da ngay yeewu teel di xëy di wàcc di liggéey. liñ lay fay da gis koo xam ne day nelaw benn journée mu liggéenti ko ñëw toog yow sa sa liñ ngay fay weer da ngay gis koo xam ne du xëy du gont du def dara tappalay def tappale ak fen wala nekk ci kii di woote ñu fay ko lu ko ñu jox ko lu ëpp yow liñ lay fay par weer mais loolu fu ko teg nga yaakaar réew moomu dina avancé. Mm-hmm. gis nga dama lay wax leen fulla ak fayda boroom ñu ñu nekk fii nag lu ñu mën ñoo koy def ñoo ngi cotiser sañu xaalis di def sañu coono di woote di wax ak nit di def lépp. li ci des nag yéen a koy mottal yéen ñu nekk senegaal mhm. nit ñun lu ñu bëgg dañu dañu leen wan lu ñuy nappee jën Omar Pène dafa ne bu ma la ñaanee wan ma ni ñuy nappee moo gën chaque jour nga may ma jën mhm. ñun dañu leen wan na jën nii lañ koy nappee Sénégal nag ñooy góorgóorlu bàyyi ruubekat yi bañ leen déglu bañ leen déglu xool luy fullaak fayda def ko ñaareel bi mooy ay Karim Wade dafa am double na sax Karim moom du gañe Karim moom mun nañ ko bàyyi sax mu bokk moom du gañe <laughs> Khalifa Sall lan moo tax nga ne Khalifa Sall non du gañe Khalifa euh, soxna si nit ñi duñu nekk fii di liggéey di rey sañu bopp di wax di xanaa man sa Karim Wade bu ñu ko naree fal xanaa man ñu fal ma man ni xam ni sax ju damay woote Karim Wade daa mos a wootee wax dara daa mos a wax xalaatam <laughs> mi daan na ay da naan cëpp na la da nga naan cëpp na lay rek ñu fal la pour la lu mu def bañ koy fal ay poste <laughs> daan na posté. man papaam dama ko doon votel man PDS dama ko doon votel Ablaye Wade ba muy ñëw université naan naa leen indil bu ma faloo naa indi oto boo xam ne boo nee supp kànja mu defal la supp kànja loolu sama kanam la <laughs> tappalekat la ay tappalekat lañu ñu Karim Wade Macky Sall Khalifa Sall kii dëkk kees kooku xam ne jamul puusul tàqul moom dell ginnaaw rek lay def ñoom ñëpp a ay tappalekat lañu mhm. ñun nag ñooy am sañu fullaak sañu fayda Thierno Alassane Sall bu mu sonn di def recours Karim Wade Karim Wade du gagné Khalifa Sall kenn jarul Khalifa Sall sax dégg naa am na double nationalité mais jarul topp parce que du gagné ndereñ bala jóge fu jóge jóge kii pël Fuuta boobu moom du gañe jarul sax moom Macky Sall da kaa tànn ba pare di ko rëccu mhm. waaw léegi nag problème bi mooy li si des bareetul coow li jaratu ko coow li ci boppam jaratu ko nañu dem jëli carte yi kart mooy fal jëm leen jëli carte yi bu vote ñotee ñu voté xam ku ñuy voteel jeex na tàkk loolu rek mooy wax ji d'accord waaw ñoo leen gërëm di leen sant yàlla na leen yàlla defal jàmm te bu bu Sonko de faloo nag na leen defal télé ak rajo parce que xam ne yéen bokk ngeen ci combat bi. incha allah amiin. waaw jërëjëf. 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 su ko defee rek ngeen daal di mën a bokk ci li nga xamante ni mooy abilay euh, waxtaan ngeen continuer aimer partager live bi. Ah, su ko defee rek waxtaan dina gën a mën a yegg voilà ah, na kër yi jóg ngeen laal kër yi partagé ko bu ko defee rek ah, ñi ñi mën na dugg si mën a gis seen notification ànd ak ñun ci waxtaan bi comme ni ma ko xewoon sànq levée du fonds bu Pastef bi jamono juñ toll nii te diwaanu diaspora bi Mansour boo ma mënee wëral chiffre eh, bi nga xamante ni mooy liñ ko par gi ñu dajale daanaka daal laal na cinq cent millions quatre cent et euh, plus la donc boo ma mënee wëral euh, chiffre bi pour ma xam ñaata lañ leen dajale waaye lu ëpp quatre cent millions jamono juñ toll nii waa diaspora bi dajale nañu ko ngir rek euh, daal di mën na gunge candidat wu Pastef bi ci élection yi ñu daal di dëtmal voilà bu fekkee am na leen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar mbokk mi bu baax a bu baax a baax. waaw ñu ngi leen koy delloo. Mm-hmm. ñu ngi rafetlu seen taxawaay. merci beaucoup dinañ ñaanal yàlla. Mm-hmm. alhamdulilah bon somme bi day ñu naan si cinq cent millions. tuuti na lool nag. ndax ndax loolu moom mënutul campagne. Mm-hmm, diaspora bi. waa Touba maa ngi doon liir sept cinq million millions. laa doon wante tuuti na lool waaw ndax. Ah, ñi moom la ñuy tuuti na ah. Mhm. diaspora bi. Euh, euh, ah waa Pastef waxatuñu dara de 500 million baax na. diaspora bi ah, dajale 500 millions nga dafa tuuti wala da bëggoon ñu am 1 milliard. yii eh, non loolu tuuti na si campagne campagne budget la de donte que ni patriote yi moom dewul sax ñu nga leen di fay mais chauffeur yi ak gasoil beeg yooyu noonu yëpp. budget la de. Hmm. mais mais euh, ah, diaspora bi rek 500 millions bu ñu amaatee leneen dolli ci kay loolu baax na pour campagne. nga xam xam nga ñenn ñi ay trois milliards dañuy campagne booy xool te yooyu noonu yëpp lobby yi ñoo leen koy jox quoi. ñun donte que ni même bu néewee kat xam na ñu ñëpp si def suñu ñàkk kon lool dina baax quoi. te mm. kenn après buñ jëlee réew mi allah dina tax kenn duñu teg pressing côté boobu baax na si alhamdulilah. d'accord. bon pour wax waxi jomaa yi on passe ndax naa duma si wax noonu quoi benn instant xam nga kuy toxu ak kuy waaj a moom. doo du doo ne du neex a eh, dëkkal Macky Sall looloo ko dal nag moo tax ñoom dañoo wàccee seen bopp bu baax a baax te loolu ñëpp dis nañ ko quoi benn appel rek laa bëggoon def. Mhm. gars yi nañ taxaw. yi ñuy mun yor téléphone satellite yi Nokia yu màgget yooyu noonu yëpp ndax yi buñ demee ba bis bi xaw a jege moom. internet yeeg téléphone yeeg lépp lañ leen coupé bu dee dinañ dem élection ndax man ba léegi moom gëm naa ni duñ dem élection ndax boo leen di xool mi ngi commencé di def benn purge tamit si armée bi am na am na benn commandant bu ñu radié semaine bi génn te cinq commando yooyu noonu réegoon ci ndox mi te affaire bi kenn waxatu si cinq commando am na benn cinq commando il y a maa ngi jaajëfal sama grand Kayis maa ngi doon dis mu ngi si doon wax. ñooñu léegi di kenn déggatuñu seen wax ndax ñoom dañuy bañ xam nga bu dee waxtaan yi ñuy def si suuf ba léegi aboutirgul yëpp naan non kenn du sàcc élection dañ fiy sàcc seen élection même arme bi kenn du fa yëngu ndax ñu ngi commencé di dindi seen nit ñi moo tax ma bëgg nit ñi ñuy wax tamit ci cinq commandants yooyu wax ñu ñan ban ban fin lañ def waaw ndax nee nañ ñu ngi leen di séet te koy seet ci géej pendant du une deux semaines moom <laughs> góob nga dis leen. d'accord waaw côté boobu rek laay wax di wax nit ñi nañ jug taxaw waaw. Mhm. jëf jaajëf merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup <laughs> Seydou li nee na soxna Diaga demande combien euh, non c'est pas grave euh, peut-être euh, moom est-ce que mi ngi ci diaspora bi xam na peut-être Sénégal la Sénégal la nekk ma rahmatulah aussi nee na dafa tuuti man je me dis que ñu cinq cent plus de wala lu jege cinq cent millions ñu ñu ñu ñu récolte ñu ñu ñu dajale ko ci diwaanu diaspora bi c'est bien quand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 maanaam xam nga man euh, lu ma mu nga baal ma xam nga man li ma jaaxal si ñun Sénégalais yi. Mm-hmm. damaa xamul dañoo tooñ suñu borom. wala dama xamul maanaam ñun ñu ñuy jiite ñoom ñu seen seen seen seen maanaam seen xam-xam moo des wala population bi moo ñorul danga maa laaj lu ko sabab. lan moo sabab loolu. Macky Sall ba toogee ba léegi xam na benn suur bu nga xam ne maanaam xëyul rek maanaam journaliste yi ñu créé benn affaire rek. sànni ñu ko rek ñu xëy da si commentaire da si commentaire ba jadd bi so bu subaa mu jàllale ñu si leneen mën nga koo gis mën nga koo gis chaque jour rek ak problème bu boppam bu mu ñuy indi rek journaliste yi tegal ñu ko ñu nekk si da si commentaire da si commentaire parce que ñaari mbir dafa am problème mu Karim Wade nationalité France wala lii ak laa kooku dépassé nañ ko bu yàgg kooku dépassé nañ ko kooku ñun waruñ koo ligganti sax ñoom Badio Camara yi ñoo ko war a lijjanti waaye du ko xam ne opposition di ko wax wala ay journaliste ko paranteere déedéet Karim Wade fu ñu doon bu ñu ko sampaloon tam ñun sénégalais yi ñun la des lu ñu liggéeyaloon bu ñu doyee dañ koo fal bu ñu doy ñu sànni ko tànn keneen ku ñu gënal waaye Karim Wade nationalité lii ak Samba Ndiaye loolu amul sens xam nga ñun lan moo doon suñu sens tey Macky Sall bilan bi mu am tey kontaan nañ ci wala kontaan nañ ci ak keneen kii ñëw ëllëg Macky li Macky Sall man dina ko man wala déet loolu tey moo doon suñu commentaire. ak tey maanaam seen ay ñi nga xam ne bëgg ne poser candidat maanaam ku si ne tey wax ne man su ñu ma joxee réew mi fii laa leen jëmee loolu moo doon suñu sens waaye xëy rek dañuy wax Karim Wade lii wala laa wala lii wala lii loolu amul sens si ñun dañuy tardé rek temps temps dafa seer taa kenn mënu koo jënd. waaye xëy rek jënd ay journaliste rek ñu bind benn affaire man daal ni ma ko gisee mooy yow moo jiloo sa boolu ceeb teg sa buntu place xañ jot. nga eh, xool la la sa neex nga dagg bopp jën ba sànni eh, sànni ko muus yi xam nga muus yi bu ñoom si loolu la ñuy nekk di coppat coppate man daal loolu laa gis na ñun daanaka ñun politiciens yi loolu la ñuy xëyee dañu gontee Sonko nag moom li mu xam yàlla mbiram yàlla la ba histoire mu dana ko bind politicien bu nga xam ne sa population yi ñooy dajalee dërëm ñaari dërëm ñetti dërëm fukki dërëm cent franc dix mille franc lu muuru muuru métier nga dëj gis sa njaboot vingt ans nga mën a yëkkati dix mille francs cinquante mille jox Sonko na ko dañuy bëgg nga doxalal ñu am yaakaar si yow loolu moom mu ngi doog a xam yaa du ñu yàlla defal jàmm si Sénégal yi yàlla indi ñu jiir lu ñu mën a soppi ba nga xam ne bu ñu xëyee liggéey la ñuy def bu ngoon jotee ñu dem tëdd nelaw dañu tegal bilan yi normal yu ñu mën a xam dégg nga. amin amin jaajëf jërëjëf soxna si merci beaucoup ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk moom lay 88 628 628. 78 73 wala ci 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Aminata Touré mu jiite ñi nga xamante ni dañ leen euh, te ci parrainage bi moom ak Bougane Gueye jamono juñ toll ni ca douane bitim réew ña nga fa di daal di rek euh, ñaawlu anam bi nga xamante ni moom la parrainage bi di doxee foofee ca Union européenne jamono ji ñoom Aminata Touré nag ña nga fa nekk di wili pande euh, conseil constitutionnel ak kii di président Macky Sall ponk bi bokk na ci. recours yi nga xamante ni candidat yi dinañ ko daal di foofu foofulee ca conseil constitutionnel candidat yi nga xamante ni jàlluñu ah, ci parrainage bi jamono juñ toll nii nag ay plainte yi tamit dal na ci diwaanu euh, DGE ak conseil constitutionnel ñenn ci ñi nga xamante ni ñooy candidat yi ñoo daal di def yooyu lay euh, plainte bu fekkee am na keneen aku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum allo asalaamaaleykum maaleykum salaam mbokk mi ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. delloo ziar delloo maa ngi mhm. nuyu sénégalais yëpp. ñu ngi lay fay di sant ñëpp di seen taxawaay rafet na. jaajëf maa ngi woote ba Maroc. d'accord. waaw ma bëggoon souligner rek man moom du ma ñëw lu bëri ci euh, recours yi ñu jot a def. Mhm. parce que man pour man ñun comme ni ko waa ji waxee léegi ba mu génnee rek pour man képp koo xamante ne soxaluñu ñun duñ ko teg suñu bopp réew ndax tamit système bi leer na leeraay boo xamante ne soxlootuñu sax ay nit ñu ñuy wax kii la walla du kii donc je pense que Sonko liggéey na si loo xamante ne ñun ñëpp ràññee ne lañ mooy système bi man fi ma bëggoon ñëw rek mooy ñu def trop très très très attention concernant élection yu ñu dem nii. parce que mhm. man élection yi ba léegi gëmuma ni sax dina am ndax nii nga xamante ne Macky Sall ak régime am ñu ngi def demee nii. gëwuma élection dem am si Sénégal. da nga bokk ci Sénégalais yi jàpp ne élection awagul yoonu am. awagul ci yoonu am daal. non non non. Mhm. parce que gis nga ni ñuy dérouler nii yëpp ni ñuy dérouler nii yëpp parce que li may gën a ragal li may gën a ragal mooy vingt et un candidats yi vingt et un candidats yi ñuy kii parce que nee nañ élection pour ñu mën ko repousser en cas de benn. Euh, euh, benn parti ci si si si candidat yi ñu mën a repousser te régime bi ñu am nii saay-saay nañ saay-saay boo xamante ne lépp sañ nañ ko ndax nag dañu won loo xamante ne tey jii ñun wóoluñu si ñoom wóoluñu leen may interpeller nag sénégalais ñu taxaw te jëli seen carte parce que loolu rek moo nekk suñu suñu meilleure arme boo xamante ne moom la ñu mën a jëflanteel pour jëlee fi ñi fi nekk nii lenn nag lay wax Macky Sall Macky Sall dafa war a xam ne jeexal na te sa meer meer génn bu mu mën a def moom muy mooy mu dem jubo ak Sonko moom mooy mu dem juboo ak Sonko parce que muy Amadou Ba sax ki mu gën a yaakaar ne kooku moom mën na ko si génne kooku mooy mooy ki nga xamante ne sax mën na ko war parce que am nañ ay exemples yoo xamante ne am na si sous-région bi. Sonko au moins dégg sénégalais yi déggal nañ ko de telle sorte ko un jour bu Macky Sall amee jafe-jafe ak yoon Sonko mën na waxtaan ak sénégalais yi ba ñu bàyyi ko mu dem mu nekk ci jàmm sénégalais yépp ànd ak moom mais keneen ku fi toog ku dul Sonko man gëm naa ne munoo am jàmm gouverner ci Sénégal te amoo foo jaar ak Macky Sall walla ñi ko wër loolu mënul nekk parce que peuple bi dañoo réveillé wu ba nga xamante ne. kenn mënu leen nax amul beneen politicien buy ñëw toog di naan day def deal ak ñi fi jot a jàll walla système bi loolu amatul mënatul nekk actuellement système bi dañ ko dañ ko dañ ko cerner dans tous ses plans li lañ ko cerner mënatul rëcc Macky Sall nag moom moo war a xam ne ba muy jot nguur gi dañ ko ko jox ci p ak ci teranga teranga bi dem na p bi dem na lenn rek liñ koy ñaan. ñu ko sax pour mu jubóole Sénégalais mais mu joxe dëkk bi si ni mu ko bàyyee nii parce que un peu de plus mu déborde un peu de plus mu déborde man loolu daal laa amoon lu may wax. jaajëf maa ngi sant euh, sénégalais yëpp di gërëm ñëpp. merci beaucoup merci ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 si numéro yooyu ngeen daal di jaar yéen i tamit su ko defee rek di ngeen daal di mën a bokk ci waxtaan bi mën ngeen a wéy aimer partager live bi su ko defee waxtaan bi gën a mën a yaatu recours yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci bésub tey jëlee foofee ca diwaanu conseil constitutionnel euh, conseil constitutionnel euh, ñi nga xamante ni ñooy candidats yi ñu nga fay amal ay recours euh, Alassane tâche moom aussi mu ngi waajal def ab recours ngir rek euh, dal di di sàkku kii di Karim Meïssa Wade euh, bañ a bokk ci yële élection ndax la ko sabab nee na moom Karim wadd dafa daal di yor ñaari nationalité voilà beneen ponk bi ñuy waxtaanee tamit bokk na ci. Euh, Benno Bokk Yaakaar ñu ne euh, seenu candidat du baax moo ko daal di jiite ñoom itamit jot nañ ni ki tey jile dinañ def ab recours ngir rek sàkk ci Bassirou Diomaye Faye moom it mu daal di bañ bokk euh, ci lay élection bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko continuer leen aimer partager live bi su ko defee rek waxtaan bi dina daal di gën a mën a yéeg 88 628.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 waaw xanaa di leeral benn leeral bu ndaw rek ndax dafa mel ni Amadou Ba moo am droit pour def lii. Mhm. recours dañoo ne dafa mel ni duñ koo bëgg mais defaguñ ko. parce que mhm. dafa mel ni waa ji doon wax sànq dafa mel ni dañoo ne daf koo def te loolu erreur la quoi. dañ dañoo dañoo njott ni tey dinañ ko def. waaw waaw duñ ko duñ koy jot waaw ba pare tamit ñu maytu maanaam waxu affaire Amadou Ba pël Fuuta la Amadou Ba mënut a nekk pël Fuuta ndax Sénégal la juddoo <laughs> dëgg la man ànd ànduma moom parce que Sénégal la juddoo ndax Barack ma nekk na président Amérique. Mm-hmm. te xoolee origine am Kenya la. Mm-hmm. boo demee France Sibeth Ndiaye ministre français la woon xoolee Ndiaye moom ñëpp xam nañ fu mu dëkk Sénégal. Mm-hmm. boo demee tey jii Mali. Ablaye Diop mooy seen ministre des affaires étrangères xam nga Diop ñëpp xam nañu fu mu jógee la boo demee Malien ñu fa sant Diop ñëpp Traoré lañ leen wax mais bu ñu nee Diop carrément dañuy xam ne Sénégal la mooy wax yooyu moom nañu ko bàyyi loolu du wax ju baax. d'accord mhm. ñu ñëw ci point yi loolu waaw léegi beneen lii bi lan la. recours yi nga xamante ni euh, jamono ji ñu toll nii gis na ne. Euh, euh, Cheikh Alassane euh, Thierno Alassane Sall mi ngi koy waaj a def na kii di Karim euh, Wade warul bokk ci élection yi ndax dafa daal di yor ñaari nationalité ak yeneen recours yi nga xamante ni jamono ji yenn ci candidats yi ñu ngi koy daal di def Union européenne jamono ji ñu nii mii Mimi Touré ak Bougane Gueye dani ñoom ñi nga xamante ni ñoo ëmb euh, ñi nga xamante ni ñoom la ñu téye ci parrainage bi ñoom aussi ñu ngay daal di rek Willy Pandé Macky Sall président Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñooy waa conseil ak plainte yi waaw bu nekkee bu nekkee mbirum mbirum moom ka def moom am na droit def recours mm-hmm. waaye nag wax dëgg moom Karim Wade moom ah man de ay at ci ginnaaw di déggoon naa ñu ne renonce na ci nationalité am loolu moom doon nañ ko fi wax moom avant deux mille dix neuf mm-hmm. waaw mu ne ko doon na Karim Wade renonce nationalité français léegi nag ka def moom am na droit def ko ndax yoon moo ko ci digal kenn bëgg président boo xam ne dafay am président d'accord kon benn président dëkk ci dëkk ba pare mu nekk te moom dafa amaat daa am ba beneen dëkk mu mu nekk mu am président loolu moom wax dëgg yàlla tamit du lu xel nangu. waaw hmm. mais yàq yàpp jàpp naan tamit Karim Wade ak ay waa mu dafa yeewuñu ba bay dem ci ay élection tey tey am nationalité te lii tamit dama jàpp ne pour pour may Karim Wade buzz rek la ndax Karim Wade ñun fàtte nañ ko Sénégalais yi. yorul sax mu ñu ko fàttali mais mais mais nga wax sànq ci ci ci ci waa Benno Bokk Yaakaar naam d'accord na ak yow que nii mbir mi nekk na loo xamante ni jamono ji dañ koy ruumalaat ñoom ci seen waaye nekkagul lu ñu def mm. maanaam recours bi nee nañ amaana mën nañ ko daal di def tey ndax jàpp nga ni même bu amee waa Benno Bokk Yaakaar war nañu mën a def recours ngir Bassirou Diomaye fay mën na bokk ci. bañ a bokk na ko loolu moom ñoom buñ ko defee seen bopp la ñuy feeñal rek. Mm. xam maanaam olof dafa ne buñ lay jiin dem ñuy fekkal ngay so ca leeru lii kon yow d'accord maanaam maanaam waaw maanaam maanaam loolu la rek maanaam ñoom day wan kon boobaa ñoom dañoo ragal ni ñuy wax ne dañoo ragal sonko léegi dañoo ragal sax booyu sonko. d'accord donc loolu yaakaar ne ah bu ñu ko defee moom erreur la moom na ñu ko def. d'accord waaw. Mm. te ngi sàkk ñoom ne ko na libéré projet ñi mu tëj yi ñoom maire Amy Dia. Mm-hmm. waaw na leen bàyyi moo gën a rafet ndax nit tamit dam bay bàyyi ci di tàggoo ab savoir yow ba pare tëj ay nit ci kaso bi ci politique kese. ah yow boo boo boo paree bu ñu la tëjee bul meer de wala say mbokk bu ñu mer waaw loolu loolu na bàyyi doomu jàmbur yi mu jàpp ci kaso bi ñibbi loolu ñaaw na trop ay papay jàmbur xoolal meeru Padois bi dem boo gisee fan yi nu muy yoree kaan nga xam ne kii feebar na te mel woon noonu. Mm-hmm. teg ba mu ko ci kaso bi ba mu génnee la feebar loolu dafa ñaaw. Mm-hmm. àdduna jarul lool. Mhm. am na solo waaw jërëjëf. am na solo jaajëf merci beaucoup ñu ngi lay euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Samba bay Samb demande lui ban partie la bokk ah d'accord. <laughs> non c'est pas la peine euh, 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 merci maa ngi gis aimé partagé mais gën leen yokk ñi nga xamante ñoo ngi dogoy dugg ñu ngi sàkku ci ñoom aussi ñu partagé live bi su ko defee rek waxtaan bi gën a mën a yaatu dinañ dem ak yéen ba 15 heures incha allah ci 88 02 77 914 64 93 ah, Moussa Lamy yéen ak ma koy laaj mais ah, maag yéen a ci yam képp gisatuma ko ah donc maa ngi ñaan yàlla yàlla na ko jàmm rek di tee moom Moussa Lamy ah, ci lépp lu mu mënta nekk yàlla na nekk jàmm ñu ngi koy nuyu di ko jaajafal bu baax a baax gisatuma ko ci ci li nga xamante ni mooy panel bi et que ni jàmm rek moo ko moo ko tee 88 628 73 13 bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna ñu ngi lay ziar mbokk mi di la jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay nuyu di la delloo ziar. Seydou Seydou lii ñu ngi lay jaajëfal. fanatique fanatique Sonko <laughs> fanatique ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi nuyu aussi fanatique bi dugoon sànq aussi maa ngi ko doon déglu moom it. ñu ngi lay fay. maa ngi maa ngi maa ngi nuyu ñëpp. di di mhm. jiital ci nuyoo bi comme d'habitude Fatou Ba ak waa Jokalante. imam El Bachir maa ngi nuyu aussi. allo allo. 88 628 73 13 08 99 allo Seydou oui ñu ngi lay dégg. oui. maa ngi fi. Mhm. Mhm. <laughs> Euh, ma ne maa ngi nuyu ñëpp. nuyu aussi Binta Sarr di ko xamal ne euh, comment il s'appelle ci ñun la bokk de toute façon ci c'est nous dans nous quoi mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. de toute façon dërëm bi gënul gaal gi quoi dëgg la uh-huh. bon et puis waa jooju génn sànq mm-hmm. maa dëgg muy wax euh, nañu bàyyi li ñuy wax ci Amadou Amadou Ba bon muy wax muy cité ay euh, je sais pas oh Barack Obama et cetera xam nga waxuñu waxu origine c'est pas affaire origine la ñu wax dañuy wax double nationalité la ñuy wax bon je ne sais pas ndax Amadou Ba am na ko ou pas. Mm-hmm. mais on parle de double nationalité koo xamante ne am na nationalité sénégalaise ba pare am beneen nationalité xam nga mun nga juddoo feneen waafe mun nga nekk origine feneen nga juddoo ci réew ba fekk nationalité réew boobu kese nga am. d'accord. Mmh, mmh. voilà on parle de double nationalité bon je ne pas moom am na ko amul je ne pas mais am na beneen waay bu dugg sànq aussi. boo gisee mu mu mu wax Amadou Ba c'est-à-dire dafay def allusion par rapport lu tax ñu ne dañuy dugal recours contre Diomaye fay mm-hmm. c'est-à-dire dañuy ruube maanaam bu fekkee ne dañuy ruube ñun aussi mun ne ñoom aussi mun nañu ruube mm-hmm. dugal recours mais Amadou Ba aussi moom it double nationalité la am quoi man pour man foofu lay waxee moom aussi d'accord parce que uh-huh. tey mm-hmm. parce que tey bu ñu waxee waa APR pourquoi duñu wax Amadou Ba le candidat c'est Amadou Ba parce que y a que le def recours contre beneen candidat boo xamante ne aussi bokk na ci ci ci ci ci ci liste bi. Mhm. mais c' est pas pourquoi ñuy wax waa APR. mais nañ wax Amadou Ba tout simplement. waa Benno waa mu euh, leer nañ waa Benno pardon waa war ñu wax waa Benno parce que c' est pas waa Benno ñoom ñoo mun a dugal recours c' est Amadou Ba en question le candidat en question moom moo mun a dugal recours. Mhm. nañ wax mbir mi mu leer mu bàyyi seen tappale yi ñuy def. Mm-hmm. xam nga ay layam layam boobu jaru ko xam nga loolu yëpp ay tappale la rek parce que ban recours la ñu dugal ci ci ci ci ci Diomaye maanaam pour affaire de double nationalité ou bien parce que tey en dehors de la double nationalité lépp lu des waa conseil constitutionnel ñoom ñoo koy saytu ay mm-hmm. magistrat lañ mm-hmm. <laughs> n'est-ce pas par contre nit mun na am double nationalité fekk ñoom duñ ko xam par contre loolu moom mun na ñàkk des ci seen liggéey mais par contre bu fekkente ne am na keneen ku ko xam posséder ay preuve yu tangible yu leer bu boobaa mun nga dugal recours nga indi ay preuve nga ne diw de am na double nationalité voici les preuves. en tout cas ñoom ñoom ñoom fasalaguñu motif bi tax ñu ne dañuy def recours euh, contre ay fay waaw loolu laa wax ma ne. Mm-hmm, mm-hmm. en dehors de la double nationalité. Mm-hmm. maanaam yeneen neuf yi nga xamante ne euh, critères yi nga xamante day bokk ci lu tax ñu sélectionné la comme candidat mhm. maanaam bu weesoo double nationalité bi laa wax li des yépp waa conseil constitutionnel en tant que des magistrats mun nañ ko seytu mhm. maanaam ndax am na droit ou amul droit xam nga ndax yaa ngi comprendre fi may wax bu baax comprendre na bu baax mhm. très bien donc en dehors de la double nationalité li des yëpp ñoom mun nañ ko seytu bu mu leer nañ ñu ne kii am na droit bu ñu ne am na droit rek keneen mënu ko dindi mais par contre la double nationalité bu boobaa ñoom mun nañ ko ñàkk xam par exemple je dis n'importe quoi ma choisir ci kenn nañ wax par exemple am na benn benn faatu bu ci bokk mais faatu boobu ñoom xamuñu ndax am na double nationalité mais par contre man xam naa ne am na ay preuve ne faatu bi bokk ci candidat yi am na double nationalité bu mm-hmm. boobaa bu ma defee recours bu boo ko ma indi ay preuve wane ne faatu am na nationalité américaine aussi en plus de nationalité am sénégalais fu mu yor bu boobaa bu dee preuve leer na ñu jot ko boobaa ñu ne effectivement am na double nationalité mais en mm. dehors de ça je ne vois pas pourquoi te man jusqu'à la preuve du contraire je pense que Bassirou Diomaye Faye a amul double nationalité. Mm-hmm, mm-hmm. je pense bien parce que ñoom de toute façon niróo ñaar ñoo xam ne soxla nañ ko soxla soxla lu ñu doyee double nationalité sax ñoom bref alors euh, bu loolu passé xam nga ñoom dañoo dañoo jaaxle dañoo tiit Sonko la ñu toppoon. ñu ne dañoo ragal Sonko ñu ne non non Sonko kii la amal problème comment elle s'appelle Adji Sarr la amal problème ñaari citoyen la ñoom seen yoon newu ci patati patata. ci mm-hmm. cappaandaw ba ñëpp xam nañ ne ñoom ñoo nekkoon ci gannaaw loolu moom leer na ñëpp leer na Sénégalais yi leer na international bi yëpp leer na ñëpp n'est-ce pas. Mm-hmm. léegi fu mu nekk ci jomaay la ñuy jublu bu yàggee aussi ñu ne euh, Cheikh Cheikh Cheikh Tidiane aussi fii daal gis na <laughs> loolu du leen taxa a mucc. Mm-hmm. gis nga loolu du leen tax a mucc lu ma waxoon encore une fois bu soobee yàlla ak yonent bi gis nga ñu ko xari pro pro di waxee gis nga pa pale bële Sonko moo fay daagu de bu soobee yàlla incha allah te am na ku wax sànq sax muy ne Macky na na na bàyyi euh, euh, euh, prisonniers yi c'est-à-dire man sax duñ doon wax prisonnier mais c'est des ñu ci gën a bëri ñoo ñuy wax c'est des prisonniers politiques ñooñu moom lu ñu lu ñu lu ñu nekk ci kaso lu leen desee génn moo gën a tuuti. Mhm. parce que bu soobee yàlla moom fii à partir de février prisonniers politiques yëpp dañ leen di génne ñoom ñëpp lañu génne rang la ñuy def ni génne leen ñu rang ñoom ñëpp ñu génn ci biti. parce que ay mhm. tappale ak ay caaxaan kese ñoom moo leen fa bàyyi. Mhm. parce que j'espère que j'espère que ils n'ont pas mon frère. loolu ñu jàpp ci nit ça fait un an et quelque ñu jàpp ci nit loolu du tappale. loolu du politique loolu mu doon ah. pendant ce temps ñii rey nit ñi ñii indi ñi nga xamante ne de dañuy dugal ay ay médicaments yu ñu trafiqué Sénégal ay ay ay ay ay conteneurs conteneurs ñu bàyyi leen ñu dem doxi seen soxla ñi nga xamante ne dañoo jàppee affaire yu dorog ñu bàyyi leen ñu dellu yeneen réew et cetera ñi nga xam ne dañoo rey ay nit ñu bàyyi leen ñuy ñuy traîner biir Dakar ñu delluwaat di reyaat ñeneen mbala di agressé ñoom ñooñu mun nañ leen bay waxatuma la ñoo xamante ne fi caaxaan lañ leen bay ay góor yu set wecc ay liggéeykat. comme xoolal Bassirou Diomaye Faye kan moo ko gën a yaru ci Sénégal kan moo ko gën a euh, am respect ci Sénégal un gars courtois ñu tee ko ci kaso bi ñu gëmloo ne duñu ay euh, prisonnier politique xam ah, nga yooyu tappale yooyu mm-hmm. xam nga daal Sénégal daal dafa nekk réew boo xamante ne dañ ko war a nettoyer changer ko de fond en comble dañ koy nettoyer bu mu set wecc mooy suñu justice bi mooy suñu lépp la ñuy changé surtout nag ci justice bi la ñuy tàmbalee nag bu soobee yàlla gis nga man li may ñaan mooy gis nga li xew Guinée li xew Guinée maanaam gis nga bu ñu demee ba ba régime bi changé gis nga magistrat caaxaankat yi nekk fii ak conseil constitutionnel ñu nekk fii waa CDC ñu nekk fii ne duñ duñu livré duñu joxe euh, fiche euh, de parrainage waa DDC CDC ñi nga xamante ne ñu ne duñu joxe quittance et cetera ah ñooñu ñëpp dañ leen teg ci yoon.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 Euh, déposé recours contre Bassirou Diomaye Faye Amadou Ba lañ ne jamono ji euh, mooy euh, envisagé daal di def recours contre Bassirou Diomaye Faye waxaguñu motif bi nag lan moo ko waral maanaam leeragul leera leeralaguñu ko waaye jot nañ ñu tey jii daal dina daal di amal ab recours comme Thierno Alassane Sall aussi mi nga xamante ni jamono ji dina def recours euh, contre Karim Wade ndax jàpp na ni double nationalité bi mu am euh, euh, téye na ko bokk ci lay élection 88 628 73 13 08. 99 25 24 02 77 914 64 93 continuez leen aimer partagez live bi s'il vous plaît euh, su ko defee waxtaan bi dina gën a mën a yaatu Fatou Thiam maa ngi lay seen di la jaajëfal bu baax a baax Fatou Thiam ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum allo. wa rahmatullah Oscar Siara ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu bu baax. lay delloo jaajëfal di la fay ñu internet ci a TV yëpp. jaajëf ñu ngi lay fay di wax ni yokk abonnement yi. Mm-hmm. di aimer di di commenter. surtout voilà lool dina ci baax trop. dina am solo loolu. waaw mm-hmm. dina ci am solo quoi. maa ngi mm-hmm. di nuyu sama gars yi ci kii sama gars yi Rose Sylvain Sarr Mm-hmm. Seydou Satou Ba Fatoumata Ramatoulaye ñëpp daal fu leen di nuyu di rafetlu waxtaan bi vraiment am na solo fan tig euh, li ñu wax sànq am na solo macha allah mm-hmm, mm-hmm. waaye xam nga li may wax rek nee naa euh, bu reppee ci xare lu mu jiin rek da koy xeeb parce que da koy leer ni du romb tey te kuy wàllu kuy kuy lab ci géej buñ la tàllalee jaasi sax da ci jàpp waxatuma laak nag ñu tàllal la puso dañ ci jéem a jàpp mhm. bu demee ba nga xam ne Amadou Ba day eh, ñu naan moom mooy attaqué candidature bi Bassirou Diomaye Faye ak xam nga bu fekkoon nañ ne Bassirou Diomaye Faye France la juddoo wala États-Unis la juddoo fa la jàngee wala nangam ak nangam au moins kooku dina am sax euh, benn doute quoi par rapport mais Bassirou Diomaye Faye boo xam te ne nii kuréel yi euh, bu kii la boo xam ne euh, euh, locaux la produit locaux la ci réew mi lañ ko produire mu màggee ci réew mi tekkee ba noppi toog ci bi réew mu dafa liggéey réewam jaral ko lépp nag moom ak président Ousmane Sonko comme ni ñu koy waxee xam nga tey jii bu demoon attaqué kaneen sax moo woy tane au moins que muy attaqué ay Bassirou Diomaye Faye quoi mm-hmm. donc loolu naa ne jàpp ci yeelu kuy daw la quoi mm-hmm. euh, maanaam ñoom fi mu toll nii dañoo jeexal maanaam seen xalaat benn xalaat amatuñ ko ndax bi ñuy commencé di attaquer président Ousmane Sonko dañ doon wax ne nañu def le tout ba gàllankoor candidature am suñ ko gàllankooree rek dañuy def comme ni ñu defoon euh, Karim Wade euh, deux mille dix neuf bu ko defee Abdoulaye Wade ne Karim Ourin bu ko defee PDS du am candidat Abdoulaye Wade du rancé si benn ginnaaw candidat bu ko defee Abdoulaye Wade keroog fu mu ne euh, nañu taal seen ay carte bu ñu nañu boycotté élection yi ñu def ko ci Khalifa Sall Khalifa Sall ne moom Idriss Seck lay jàppale ji xam nga boobaa ñoom ñaar amul kenn ko xam te ne génn si candidat ci biir parteem mhm. keroog bu ñu ko defee nag euh, bi ñu nee loolu nag la ñuy def président Ousmane Sonko ko defee Ousmane Sonko amul topp ci ginnaaw kenn moom dafa yaakaar lépp moom leen rek moo ko ñor muy euh, pouvoir bu ko amul du rangé wu ci ginnaaw kenn voilà donc bu ñu ko defee nag ñu gis ne président Ousmane Sonko dafa génne bien vrai que ñoom APR ñooñu doon proposé naan wut leen plan beeg nangam nangam nangam nangam Ousmane Sonko déglu leen mu xëy génne leen cinq candidat ba ci biir mu xëy génnewaat leen euh, benn ci ginnaaw cinq yi ba pare tegalaat leen ay alliés ci côté bi quoi mhm. maanaam Pastef day parti boo xamante ne nii ak appareil boo xamante ne nii ñun bu ñu maanaam bu ñu Macky Sall xañee ñun suñu bëgg-bëgg même bu ñu amul ci ginnaaw kenn ku ñu rangé wu dinañu jaayante rayante ba xañ ko moom bëgg-bëggam moom ci boppam ndax président Ousmane Sonko ñun li ñu ñor mooy projet boo xamante ne Sénégal day mel ni yeneen réew yi nga xamante ne nii suñu njaboot yaa ngi jël océan Atlantique di fa dem ñun loolu la ñu bëgg loolu moom mooy nekkuñu fii combat personnel amu fii Macky Sall dafa yaakaar ni moom li ko jaral ba moom mu defar ab ab ab néegu seyam muy defar famille jabaram defar famem loolu moom moo ñor ñëpp loolu ñor ñu de ñun li ñu nar a defaree suñuy famille njaboot nañ ko defar famille sénégalais yi sénégalais yëpp a yem bu ko defee kenn dootul sonal kenn ci lenn ku feebar da nga faju ku bëgg jàng da amum jàng ku jàng ba jeexal état dina la embauché jox la liggéey boo xam te ni nga mën a toog ci biir réew mu liggéey lii moom moo ñu yor mais mm-hmm. pas interpersonnel bu ñu interpersonnel ñoroon kon Ousmane Sonko buñ ko indilee ay gàllankoor wala ñu gàlgal ka rek kon bu ñu xëyoon génn ñu ne Ousmane Sonko ñàkk ba mbakkenam jox ñu ab néewam ba ñu rob ko denc maara day taali boobaa bu ñu buñ ko rawee ba pare dinañ ne ko ah président kat dëgg yàlla fii nga mënoon a yem ci mission bi incha allah rabbi keneen dina ko jël koo xam ne ay ay am dina large ñu mën koo topp continuer mission bi xam nga lislaam bu daan xeex tey jii nii fu drapeau bi daanoo rek keneen du koy jël mhm. kuñ ci faat bu drapeau bi naree daanu keneen jël ko ñun foofu la ñu toll ba keraa ñuy am gain de cause si suñu combat bi ñu nekk nii nekkul ay ay intérêt personnel bu doon intérêt personnel nit ki du jël àllam bi ci def Pastef dafa def loo xamante ne nii ba Sénégal amee indépendance ba léegi kenn musu koo gis kenn musu koo gis candidat boo xamante ne nii nee na moom mooy candidat wala benn dirigeant parti politique boo xamante ne nee na moom mooy dirigeant bi mooy président bi bu su àllaa xaalis danaan lii lañ war a liggéey lii ak lii kon financé leen ko yéen ñi bëgg a defar seen réew ñun ñëpp ñu daw doo ñëw loolu keroog ñëw ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ ko gis keroog bi nga xamante ne nii jullit yaa ngi dem xare Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Seydina Omar ñëw na ko ah ñu ngi te tam takk xare te amaguñu ay fas manqué na ay jaasi manqué na keroog daa woo ñëpp na leen problème bi lee fi nekk keroog Seydina Ousmane ibn Affan daa ñëw wulli armoire am bépp teg na ko lii laa am bàyyi ma fa dara Seydina Aboubacar andi ñëpp andi saabay andi mhm. loolu boobu la ñuy jël bi nga xamante ne nii loolu yoonu dëgg la ñun bu ñu bëggee tabax suñu réew dañ naan kenn ku nekk la la réew mi jaral indi ko nga teg nga gis koo xamante ne day indi teg ba pare lii laa joxeel sama doom lii laa joxeel sama yaay laa joxeel sama papa loolu moom moo ñu indi ci lii yow barki di moo njaay yaa ngi tëj président Ousmane Sonko euh, euh, président Ousmane Sonko dafa am liberté lekk ci biti ñu cotisé am trois cent trente trois millions tey nga ni da ngoo tëj président Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi ba noppi nga ni tas nga passé ñu am loo xamante ne ëpp na lañ amoon kon loolu noonu bu fekkente ni nit nga dëggantaan war nga cee mën a jël ay référence xam ni lii kat wax yàlla nekkul loolu xamante ne man mën naa koo mais nag ñoom seen xel yi dañ cee toog am xel nag boo ci toogee yaakaar naa ne say xalaat du du du du xeeñ lu neex comprendre nga. Mhm. tey jii ni moom moo tax li ñuy reflété ak li ñuy def lépp mais loolu mooy loolu quoi candidature Bassirou Bassirou Diomaye Faye boo ko attaqué yaakaar naa ne mooy nga yor yet rek di dóor ci ndox bu yet wa teggee ndox mu ñëwaat ko mu war a ñëw loolu moom mooy problème bi te Bassirou Diomaye Faye tey jii buñ ko xeexoon bu jógew du tax du tax ñun Pastef dañuy croiser les bras dañuy gën a yokk suñu ay ay ay ay maanaam lu leen lu leen jaral ñu ko jaral loolu moom mooy problème bi quoi mais nekkul ne loo xamante ne ñun nit du ñu bàyyi du ñu xof du ñu tiit du ñu ragal te du ñu dellu ginnaaw fu ñu jëm ñaar rek moom moo ñu koy xëy mooy suñu bakkan wala biir kasawo te biir kasawo ñi nekk mbuur wane nañ euh, kii bi nee nañu euh, détenu ñi nekk biir prison bu mbuur ñoom seen bopp dajal nañ cent mille francs joxe ko yaakaar naa ni kasa du moo ñu kii rey moom moo ñu koy tàggale te boo ñu yaakaar naa ne suñu njaboot dinañ continuer seen combat loolu moom mooy problème bi quoi bërki démb ci guddi dama dama doon euh, sama papa daf ma woo ñuy waxtaan mhm. moom ab waa APR la ci dirigeant yi la bokk daf ma woo ñuy waxtaan mu ne ma mu xam nga la moo tax woola man nga mu ne ma yow da ngaa terroriser sama kër gi quoi nee na man terroriste laa bu duggee ko si sama jarbaat yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi ay sëtam lañu quoi mhm. nee na dafa dafa ñëw fekk leen ñu takk seen ay brassere quoi mu ne leen yéen brassere yi ba ñu mën ngeen takk ko ci kër gi mais su ma amee ay gan mu leer leen ay gan la am ay autorité lañ ay membre APR lañ na ngeen teg seen brasserie yi bañ dem quoi léegi sama jarbaat sama jarbaat ne ko maam ñun tamit dañ lay poser question quoi mun leen ah ñu ne ko maam li ngeen lan mooy seen programme comme Amadou Ba mooy sa candidat sa mbaab ne leen yéen fan ngeen xamee programme ñu nekk ah dama dañoo bëgg nga wax ñu sa programme parce que tonton moom moo ñuy wax ñoom toujours seen programme quoi seen programme ñun gis nañ suñu bopp parce que ñun dañoo war a jàng tekki ci réew mi te duñ jël océan Atlantique te duñ dem ci désert bi kon yéen lan mooy seen programme ma ne ko léegi papa ma ne ko papa loolu dañ leen waroon wax seen seen programme rek bu fekkente ni yéen ay programme fi Macky la bàyyi bi nga xamante ne moo rey ndaw ñi tëj ndaw ñi génnaloo ndaw ñi gàddaayloo nit ñi xiifloo nit ñi def leen ay jalwaankat dañ leen war a wax seen programme boobu mun a ma non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon di coupé quoi léegi bu demee ba ba nga xam ne xale yu ndaw yi ñoo comprendre ki nga xamante ne ni foofu la Sénégal toll mu foofu la enjeu bi toll yaakaar naa ne du question ni ñun mag ñi nga xamante ne ni génn nañ ci biti xam lii xew ci yeneen réew yi voilà donc loolu moom mooy woon kii bi quoi beneen deuxième point bi affaire mm-hmm. Thierno Alassane Sall bi j'espère que moom jàppalu fu dëgër te delluwu ci ginnaaw te ba mu waxee yaakaar naa ne toujours day gën a foncé que mu ngi parce que Karim Wade yaakaar naa ne bu fekkente ne dafa amoon double nationalité mën nañu triple nationalité parce que je ne pas Qatar ga mu nekk mu ngi liggéey ci administration Qatar je ne pas am na fa nationalité ou pas mais en tout cas na ko leeral quoi te yaakaar naa ne bu fekkente ne conseil constitutionnel dani képp koo xamante ne nii danga am double nationalité be am benn nationalité kese nga war a am muy bu Sénégal boo bëggee posé candidat te moom am na double léegi nag nañ ko leeral ba mu leer bu doon affaire Ousmane Sonko nag yaakaar naa ne yéen. yéen journaliste yi <laughs> du ma du ma séparer damay généraliser quoi yéen journaliste yi yéen yéen a ngi ci guddi ak bëccëg Ousmane Sonko double national double national kon lii nañ ko leeral xam naa ne classe ma jàmbal jàng ak euh, Cheikh Yérim Seck bi nañu génnaat ci tinal yi gaaw ñoo leeral ñu lii quoi mais nag ñoom yaakaar naa ni euh, bu te ni ñoom dañoo jàppe seen bopp ay journaliste am na lu ñu war a tontu te tontoo buñ ko de parce que waa ji daf leen attaqué barki dee moo jaay génne na xas journaliste yëpp traité te en tout cas euh, bi Ahmed Aidara di di jóge eh, RFM di bàyyi yaakaar naa ni loolu Ahmed Aidara mën na leen koo nettali keroog wax na ko ay waa yoo te ne da koo woo ba mel ni ku tiit nakaan toll ngay bàyyi boo demee ci man Ahmed Aidara nag président déglu fu ma dem bu ma defee ñaar revue de presse dina mel ni maa ngi woon fa ma nekkoon kon yaakaar Ahmed Aidara daa baax rek moo tax fàttali ko loolu mais waroon na koo fàttali kon bu fekkente ne ni moom revue de presse 2012 da si doon compter bay woote bay tiit kon yaakaar naa ne bu tolluwaatee fii di wax waxu revue de presse am na ko toll. donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jégal ci guddal bi daa leen def jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Oscar Sierra 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 foofu ngeen daal di su ko defee rek di ngeen daal di mën a bokk ci waxtaan bi recours contre Bassirou euh, Diomaye Faye moom la Amadou euh, Ba di waajal jamono ju ñu nii nee sax suñu maytulee ni tey jii la koy daal amal motif bi euh, xamle guñu ko waaye ñu fàttali rek kii di euh, Bassirou Diomaye euh, Diomaye Faye amagul condamnation définitive ba tey définitive ba tey jilee euh, il est innocent waaye nag jamono ji ñu ngi daal di xam xamle ni daal ñii di waa benn bokk yaakaar seen candidat Amadou baax moom ma ngay xamle ni daal dina daal di amal ab recours bu fekkee am na mbokk mu ne ci ligne bi 88. 628 73 13 continué leen aimer partager live bi su ko defee waxtaan bi dina gën a mën a yaatu Thierno Alassane Sall moom aussi également dina def recours contre Karim Wade ci double euh, double nationalité bi nga xamante ni nee na mooy mooy tare kii di Karim Wade mu bokk ci les élections bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. asalaamaaleykum soxna Diarra Boussa. ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. maa ngi delloo ziar di leen jaajëfal di leen wax ne namm naa leen gis naa mm. woote na trop. Ah, waaye sama xel ak sama xol yëpp mu ngi ci yéen. macha allah yow dañ ñoo bàyyi de. ëpp naa wax kenn du bàyyi sa bopp nekk ci kurti kurti rek yaa ma gën a xam. dëkk bi fii ni mu demee yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. sant yàlla bu wér alhamdulilah bàyyi na ngi ci jàmm. alhamdulilah Khady ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah xanaa mm. bëgg a participer rek ci waxtaan bi. macha waaw di jëkk a wax ne nañu sant yàlla rek man toujours loolu laay wax mhm. nañu sant yàlla parce que bu fekkee ne régime bi euh, système bi Ousmane mhm. ko daaneel na ko ba pare xam nga loolu rek jar na sant yàlla mhm. Ousmane Sonko nekk na candidat walla nekkul candidat dafa déshabiller régime bi système bi système bi fi nekk depuis mille neuf cent kenn mësul yegg ak ñoom fi Ousmane Sonko yegg ak ñoom. Mhm. Ousmane Sonko dafa taal xelu Sénégalais yi. wax leen ne yéen dañ leen di nax wax leen ne homme de loi magistrat ñi ma ci ñi ma ci ñi ñu ko mën a limal. Mhm. administration. ak président de la république ak ay ministre ma yenn député yi ñoom ñëpp ñoo bokk benn mbuus ak benn opposition bi ñoom ñëpp ñoo bokk benn mbuus. yor ko di doxal réew mi ci seen intérêt bopp ñoom ñoo ñoom ñoo bokk alalu Sénégal ñun sénégalais yi lekkuñu ci jariñuñu ci naanuñu ci. Mhm. jaara yaa ngi may dégg est-ce que ligne bi mu ngi leer parce que su ma damay dégg muy. ñu ngi lay dégg bu baax xadi yow rek la ñuy dégloo. waaw mu ngi noonu. kon mhm. nag Ousmane Sonko. wax fa mhm. dëgg yàlla sénégalais yi amal nañ ko njukkal. nañ ko delloo njukkal nañ ko jëfal mu nekk candidat ak mu bañ a nekk candidat Ousmane Sonko gañe na système bi gañe na Macky wane na seen ñaaw téef wane na fi ñu mën a yegg si ñaaw téef fi ñu mën a yegg ci goree di mm-hmm. fi ñu mën li ñu li ñuy def ndax alal yépp kenn ku si nekk ndekete sa intérêt bopp rek ak loo mas a wax du dëgg bu élection jotee opposition ak pouvoir di xuloo di xasante ndekete loolu yëpp naxee la woon loolu yëpp Ousmane Sonko daf ñu see dimbali. Mhm. ubbil ñu suñuy bët yee ñu si. Mhm. ndekete lépp kompaloo la woon waxtaan la woon boo xam ne nañu defee nii bu ñu paree ñu séddoo bu ñu paree nga gis même opposition boobu duggaat ci biir gouvernement bi ñu séddoo ba élection di bëgg a ñëw ñu tasaat xuloowaat ndekete loolu la suñuy papa ñun dund depuis 1960 ñun ñu dund ko. ñu bëgg ko dundaloo suñu njaboot yàlla nag wàcce fi nit ku mel ni Ousmane Sonko. Mhm. macha allah parce que jaara man dama la mës a wax ne Ousmane Sonko buñ ko xoolee nit koo xam ne rek benn opposant la bu nekk Sénégal di opposé wu ak Macky Sall man dama romb foofu au delà de foofu li tax ma romb foofu mooy affaire Ousmane Sonko du lu naturel. affaire Ousmane ko boo amee ngëm-ngëm am foi di nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ko jaarale lépp ci Ousmane ko mhm. kon képp ku koy xeex wala nga koy def lu ñaaw wala nga koy wax war nga xoolaat sa bopp bu baax te nga moytu ragal dellu ginnaaw koo xam ne depuis deux mille vingt et yaa ngi ko bëgg a tëj pour yàq këyitam pour mu bañ a nekk électeur mu bañ a nekk candidat muy soox ak yow ba conseil constitutionnel. boo waaruwul dootoo waaru Macky Sall su waaruwul dootul waaru ak pouvoir bi ko yàlla jox jox ko nguur jox ko doole jox ko lépp tegal ko mennam Ousmane sonk muy daagoog moom deux mille vingt et ba deux mille vingt quatre. Mm-hmm. Macky Sall su doon xalaat di réfléchir day delluwaat gannaaw jël Ousmane Sonko ooka nag taaj ko wax ak moom nag bàyyi sénégalais yi ñu tànn ki ñu bëgg. dëgg la. ko mhm. mm. Sonko gañe na sénégalais yi gañe nañ ndax wane nañ yàlla nañ ñun dañoo doyal ci système bi dañoo bëgg a defar suñu dëkk. Mhm. léegi quant à euh, affaire Bassirou Diomaye Faye man vraiment xaw ma recours bi lan la mais ñoom waa Pastef macha allah man dama am xel mu dal ci ñoom te lépp lu ñuy dox rek caaxaan taxul loolu rek sant yàlla. Mhm. kon ñoom nañu def seen liggéey bu ñu ko waree. may mm-hmm. kontaanaat bu baax si euh, sénégalais yi nekk extérieur. Mm-hmm. lii ñu wane bésu le quatorze bi jaara man. Mm-hmm. bi may bi ma bëggee participer aw ma koo xam ne dama ko war a au direct pour ma participer mais man maa ngi jaara ci Facebook Ousmane Sonko mu xawoon dëgër si man mais dama lay waatal ne bi ma ko defee ba pare dafa mel ni danga ma tegoon kër teggi ma ko dama kontaan si sama xol. parce que li tax ma kontaan mooy dama ne. alhamdulilah bu yàlla defee système bi daanu ñu war a defar suñu réew man bokk naa ci ñi nga xam ne participer nañ pour suñu réew mi nekk réew mu baax mm-hmm, mm-hmm. kon dañoo war a fier ci li nga xam ne dafa xew te mësul am bii phénomène politiciens yi ñoo daan sàcc alalu réew mi ñëw di la jox pour nga utal utal leen ay nit pour ñu voter leen bu ñu demee ba doomu aadama yi di ñaq ak nit liggéey méttee yéenewuñu seen xaalis kenn ku dul Pastef les patriotes pour ñu jël réew mi ah Ousmane Sonko gàcce ngaalaama maa ngi ñaanal sénégalais yi di leen encourager di wax jeunesse bi ne bu ñu décourager nañu wàññi fomi wàññi caaxaan yi xaw jublu defar suñu réew bu dul pour ñun muy pour suñu njaboot ndax jamono metti na àdduna metti na ku xool européen yi ak tubaab yi ni ñuy xeexee léegi seen biir ak naar yi ñun Afrique te loolu mosul am entre ñun war nañoo mën a booloo def benn Afrique pour dëgër ñun tamit taxaw. Mhm. ba nga xam ne la yàlla joxoon ba tax ñuy xeexoo seen biir yàlla mën nañu ko jox te duñu xeexoo mais dañuy defar Afrique ba mu baax. loolu yëpp nag ñu ngi ko yaakaaree ginnaaw yàlla ak yonante ba Ousmane Sonko jiite Sénégal. jiite Afrique ndax yàlla may man na ko sañ na ko te yàlla na ko yàlla def ci barka na benn Moustapha mhm. képp ku ko nala gàllankoor yàlla na yàlla jël say gànnaay ak sa lépp teg ko jaara maa ngi yàgg ci ligne bi mais dafa am lu ma bëgg a souligner lu am importance. d'accord Khady. muy. Mhm. jaara homme de loi sénégalais yi nañu nekk ay nit. Mhm. nañu nekk ay nit ñu régler bàyyi seen moroomu sénégalais yi ñuy jàpp di leen torturer di leen jàpp di leen yóbbu di leen tëj ci kaso yi. xale yi li ñuy xeex seen droit lañu nekk pays bi ñun ñëpp ñoo ko bokk mais yow da nekk homme de loi ñu jox la gànnaay jox la arme loolu mooy faiblesse gis nga nit koo gis balay am fit yor arme rek kooku tapet la tapet la guerrier yi nekk ci biir gendarmerie nationale guerrier yi nekk ci biir police nationale du ñu dem di engager citoyen sénégalais yi di leen jàpp di leen yóbbu di leen torturer di leen tëjlu juge di mandat dépôt ku mel ni juge Mamadou Seck kooku moom dama ko xalaat bésu yow mal xiyaam ku ñimeñ ngoo ku am fit ku man lu bon lépp lu Macky Sall di def ci lu bon doomu jàmbur bu ñu bëgg def mandat de dépôt Mamadou Seck lañ koy jox mu jàllale ko maa xam jàll waxaale ma ay waxam may woowaa conseil constitutionnel cër bi leen yàlla jox ci àdduna jox leen ko ci biir Sénégal nañ ko mate nañ ko mate niñ koy matee mooy ñu def droit nañu wax droit rek ñun bëgguñu ñu faral Ousmane Sonko bëgguñu faral kenn mais ngir yàlla ak yonent ba rek nañu wax droit Sénégal am jàmm ñu defar suñu réew avancé comme réew yëpp. am na solo jërë ngeen jëf jaara. maa ngi leen di sargal bu baax macha allah. di jéggalu ci gëj a dugg. merci beaucoup macha allah merci ñu ngi lay jaajëfal yow tamit euh, bu baax a baax. 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77. 914 64 93 continuer leen aimer partager live bi su ko defee waxtaan dina gën a mën a yaatu li ñuy waxtaane tey bokk na ci recours yu ñu tàmbalee def foofu le tey euh, ci conseil constitutionnel candidat yi nga xamante ni recalé nañu leen ñoom it eh, tam Mimi Touré Bougane Gueye jiite leen jamono ji ñu toll nii eh, ña nga ca diwaanu bitim réew ngir wi eh, wili ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ak waa conseil constitutionnel ñoom it ay plainte ñu ngi tàmbalee daal ci seenum ndodd ñu muy waa DGE ak ñi nga xamante ni ñooy waa waa conseil constitutionnel la Thierno Alassane Sall moom it jamono ji ñu toll nii combat am nee na lenn la mooy Karim Wade bañ a bokk ci yi ndax dafa am double nationalité Amadou Ba jamono ji ñu toll nii ñuy xalaat ni ni ko tey jile wala ñuy joxtu ni ginnaaw xibaar yi nga xamante ni ñu koy ruumal daal dina ni ki tey jii la Ba suñu moytulee dina def recours contre Bassirou may Faye bu fekkee am na beneen bokk bu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaw ah, salaamaaleykum soxna Diarra. maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér a wér mbokk mi. Cheikh la. Cheikh ñu ngi lay jaajëfal di la nuyu bu baax. Eh, maa ngi lu sama jigéen boobu génn léegi léegi di Khady. Khady mhm, ñu lay fay. nee leen ko nag nay dugg parce que ay waxam am na solo te contribution yi muy def dafay leer ci bopp nit ñi. Hmm. d'accord dina mi muy wax leer na macha allah xam nga. waaw hmm, hmm, ah, te li muy wax da koy teg yoon quoi bi ci topp mooy xam nga bon man damay bëgg bon waa Sénégal ñu jéem a ubbi seen bopp yi tuuti rek xam nga. te bañ a dugg ci persi yi leen waa APR di sànni quoi. xam nga parce que dañuy ñoom dañu tàmm benn instant bu ñu defee benn affaire ba ñu xam ne xam nga nit ñi ñu commencé jëli li ci li ñu nekk rek ñu jékki sànni benn perche d'accord war nañ ci waxtaan bu ñu sànnee benn perche ok parce que pour xam nga kenn ku ci nekk indi contribution bon ñu jéem a xool yan yoon ak yan yoon ñenn ku ci nekk am sa contribution wax ci li nga xalaat quoi hmm. mais nag buñ ci focus bu mu ëpp quoi xam nga parce que yow bu fekkee ne gars yi dañ ne dañuy def recours ci Diomaye Faye ban façon recours lañ ciy def yow foo yaakaar fan parce que li ñuy laaj lépp conseil constitutionnel gëstu na ko benn rek lañ mën a lijjanti muy lan ndax am na double nationalité wala amu ko loolu rek a leen ci jaaxal mais leen lan la ñuy war a mën a jël recours di ko def Diomaye fay kon foofu jarul sax di attardé wu di ci wax yenn wax yi quoi parce que sama man dama jàpp ne sama foofu boo ko nekkee sax di yi wala nga ciy jéem a toog topp ci di wax da ngay sa bopp quoi. Mm-hmm. xam nga beneen bi ci topp mooy dama gis waa APR tamit mu ngi defar beneen bon affaire boo xamante ne mu ngi nekk ci bopp nit ñi di ko jaxase pour di won nit ñi ne carrément wax leen ci lii wax leen ci lii ñu focus ci loolu xam nga pour wane ne bon nit ñi nañu bàyyi xel ne élection yi dañ koy reporter élection du am élection du am loolu waxu dof la quoi. élection day am parce que soo gisee lii yëpp dañuy bëgg a tayalloo nit ñi xam nga bon pour ñu bañ a ñi nga xamante ne jëleeguñu seen carte bañ a jëli seen carte nekk ci ay dut xam nga xam naa ne lii ñuy doxal nii nangam nangam xama ne naa jileen gëmloo ay élection man gëmuma élection am wala leneen et puis processus yi ñuy def yëpp pour attarder la parce que ñu ngi dugal ci bopp nit ñi ba nit ñi commencé di waxtaan ci loolu mooy lan ah ku nekk di bëgg a gëmloo sa ne man gëmuma ne élection dina am loolu sénégale yi waruñ ciy waxtaan quoi. Hmm. parce que deuxième la waruñu dugg ci ay élection dina am wala du am élection day am parce que perse bu ñu leen di sànni la pour attardé wu leen xam nga yenn paresseux yi nga xam ne ñu ngi Sénégal yoroon seen carte ci ci préfet yi ñu war préfecture yi ñu war ko dem jëli duñ ko mën a jëleeti parce que dañuy am dut saana xaaral ba suba xam nga affaire yi leeragul leer na ku bëgg a votel Ousmane Sonko demal nga jëli sa carte que Ousmane Sonko participer que mu ñàkk a dañu war a xam ne élection yii élection Pastef la jaar hmm. deux mille vingt quatre c' pour Pastef ak ex Pastef xaw nuñ koy mën a tuddee ñoo xam <laughs> mais deux mille vingt quatre yi warul rëcc Pastef parce que dañu toll foo xamante ne gis nga Ousmane Sonko daf leen waxoon benn wax boo xamante ne te ba léegi nit ñu duñ ci bàyyi xel mooy ala kulli xaalis ñu bañ ak ñu bëgg Pastef bi eh, niñ ko wax projet bi yàlla rek moo mën a tere mu bañ a yegg mm-hmm. te projet bii da leer ne ñoom xam nañ ne perte nañ élection yi ñoom waa APR ñoom xam nañ ne perte nañ ko déjà d'avance mais problème bi mooy li ñuy dugal ci bopp nit ñi laa bëgg sénégalais yi bantee bàyyi xel mooy lan dañuy reporter élection élection du am élection gis nga bu élection naru woon am Amadou Ba du guusee un centimètre di def ay tournée économie pour di ci jéem a def xam nga euh, campagne déguisée dañ waxante te quoi jaara mm-hmm. parce que bu leen leer woon ne calendrier élection électorale bi kenn du ko changé du ñu sonal seen bopp quoi xam nañ ne perte nañ élection yi d'avance mais li ñu mën a def mooy jéem a jaxase bopp nit ñi xam nga ba nit ñi focus bi ñu doon nar a focus pour mën a xam ne xoola carrément fii jëli carte yi moo fi des bëgg bëre bañ bëre xam nga loolu la ñuy bëgg di jaxase bopp nit ñu nekk ci yenn doute parce que am na paresseux yoo xamante ne boo duggee ci ay élection dina am wala du am même seen carte bu nekkoon préfecture duñ ko nangoo jëli fa la ñuy toog naan waaye man gëm ma ne élection dina am man damay sonal sama mais loolu laa bëgg nit ñi génne ci seen bopp jeunesse bi nañu dajaloo ñoom ñëpp jëli seen i carte te xam ne fi toll nii affaire bi xam nga liñ naan wure ba dem na kër waxi mag dem na ndañtaali dara mënta tere nit ñi dem élection bëgg bëre bañ bëre mhm. ñoom xam nañ ne perte nañu élection yi ñoom loolu ñoo la gën a xam jaara Mhm. boo xoolee Macky ak mer yi muy mer ak jëf yi muy jëf ak ni muy comporté nga xam ne moom xam na ne Amadou Ba teewul ci dara moom xam na ne Amadou Ba teewul ci dara xam nga xoolal man li ma bëgg mooy pour de une dernière fois na jeunesse bi comme ñoom ñooy fal ñooy fol yi jeunesse bi ngay falan ah. mhm. dañ ciy boole parents yi rek mais jeunesse bi ngay fal xam nga nañu jéem a fexe focus jéem a jëli seeni carte ngir yàlla ñi nga xamante ne seen carte mu ngi préfecture nañu bàyyi seen soxla toog benn jour boo xamante ne du ñu def dara dem jëli seen carte téye ko daas ko naanal te xam ne ku bëgg a votel Ousmane Sonko incha allah di nga ko votel waaw nañu fexe nañu jéem a xam nga changé réew mi quoi parce que système bi mhm. nit ñëpp ci doyal jaara parce que boo gisee Sénégal depuis mille neuf cent soixante ba léegi mënta bouger benn pas ci fi mu taxaw mooy système bii moo ñu toroxal Mm-hmm. parce que Sénégal dalay leer ne lépp am na fa mais xam nga waxu nax sa xandak yi ñuy topp euh, di ci attardé wul suñu bopp ay ay Karim Wade ah, am na double nationalité amul double nationalité Khalifa Sall am na ko damay def recours jarul def recours ñooñu ñu gañee ñooñu duñu dem fenn barki Serigne Salim Mbacké suñu amee cinq wala huit pour cent ci la ñuy yem wala six pour cent ñooñu du ñoom dara jarul sax sonal sa bopp di def ay recours naan day dañ leen di bare nañ leen nañ leen topp ak bu ñu leen topp loolu yow yooyu yëpp sonal sa bopp la xam nga li ñu war focus mooy ñu fexee jéem a xam waxaat ak jeunesse su sénégalais bi ñu dem jëli seeni carte électeur te téye ko te xam ne ren li mën a tere élection am xanaa yàlla wàcc ci kaw suuf mbaa mu dëpp suuf si loolu moo mën a tere élection am mais élection ala kulli xaalit day am mais boo gisee ñu leen di sànni persi yëpp pour gëmloo leen ngeen toog ci télé yi wala ñu toog ci débat yi kenn ku ci nekk di gëmloo sa morom ne ko euh, élection yi dañ ko war a repousser dañ ko war a repousser ba fàtte essentiel bi. waaw am na solo. nañu dem jëli carte yi. am na solo ok jërëjëf merci beaucoup Cheikh ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax euh, fi mu daanelee nag ci lay ñëw muy carte yi nañu dem. Euh, Euh, jëli ji ko képp koo xamante ni sa di d'identité joto jotogoo ci demal nga euh, jëli ji ko su ko defee rek nga daal di mën a matale euh, daal di voté ci élection présidentielle 2024 ñu daal di dëtmal 88 628 73 08 99 25 24 02 77 914 64 93 bu ko defee rek di ngeen daal di mën a bokk ci waxtaan bi beneen partagé live bi s'il vous plaît Paco maa ngi lay seen ci live bi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziyaar mbokk mi di la jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay siyaare soxna si naka ko mbaa yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. man maa ngi wootee Argentine. d'accord ñu ngi lay jaajëfal. waaw li nga xamal ni daal Sénégal moom li fi nekk fi mu toll mhm. mooy góorgóorlu jëlee seen i carte te dem wate ji rek. Mhm. moom yaakaar na mooy buur mooy bu mhm. borom moom defut génn nguur goo xam ne nii mooy continuer dëgg la. nguur gu nekk daa am fu mu yem te bu fa àggee rek dana dana jeex incha kon nag nit ñi dem nañ dem jëli seeni i carte fa seen i wate. allah. te xam incha allah te xam ne lii nekk ci réew mi du dëgg du yoon te ñoom ñoo ko mën a soppil seen bopp. parce que réew moo xam ne nii dangay jàpp gor ñi sàcc yaak bandi yaak ñooñu nga bàyyi leen ñuy doxi seen soxla moomu réew moom képp kuy doomi réew ma te nekk fa te bëggoo mu changé lépp lu la lor na la leer ne yaa lor sa bopp kenn defu la dara. nañ dem jëli seeni i carte bu buñ doon wateel ab ku dëkku téré waxuma maa jëli lay soo ko ñooñ mais bu képp kuñ mën a wateel keneen ku dut Macky rek nañ ko def ndax Macky Sall moom ak ñi ma àndal baaxuñu kër baaxuñu àll wallahi asim te lu dal waa Sénégal ñoom ñoo leen ko teg mhm. kon nag waa réew bi nañ am seen fulla ak seen fayda dem jëli seeni i carte dem seet ku ñuy mën a man waxuma leen ñu wateel kenn mais ñu seet ki leen doy ku dul APR ñu wateel ko. d'accord luñ def lu loolu ñu ngi ndax seen bopp parce que yow ku mën a jàpp Ousmane Sonko ak léegi tëj ko ci kaso bi xoolal ñi euh, ñi nga xam ne nii ñëpp leer nañ ne politique a tax ñu jàpp leen tëj ci kaso bi bàyyi ñoo xam ne nii ku mel ni Bouga Sali muy taxawaalu Bouga Sali kañ lañ koy àtte ci sunum réew ak lim lu def yor ay faux billets di ñun ñëpp ñu gis faux yi. Boubacar ñun kañ lañ ko kañ senegal kañ lañ ñuy àtteel Boubacar ñu xam ne ñun àtteel nañ ñu ko fàtte nañ ko sax lijjanteetuñ ko tuddatuñ ko sax ay bandi yu nekk senegal di taxawaalu ñun leer la ne ñii ñoo yàq senegal ñu bàyyi leen ñuy taxawaal ñu jàpp gor yu set wi ci tëj fan lañ teg loolu. wallaahi laasim Sénégal da nga ciy wax ba ci yàgg sax dootoo ci sax da da ngay mer sax dootoo ci bëgg a wax ba Bassirou Diomaye Faye mii ñu jàpp fan lañ ko teg. mënuñoo fexe ba bako ak ñeneen ak ñeneen te Macky Sall billaahi wallaahi asim moo bon ab xol te moo bon yow da ngay xool doomi jaambur yi nga jàpp dugal ci kaso bi ne doo leen bàyyi rek élection passé yow say doom di doxi soxla ñi nga àndal ñëpp di lijjanti liñ li war a lijjanti nga jàpp doomi jaambur ay jigéen non ba euh, non non non ku bon la barki alxuraan karim ay jigéen nga jàpp leen tëj leen nii amoo benn yërmaane ci ñoom amoo benn xalaat ci ñoom tëj leen ci kaso bi nii rek. ne ara yëw mi din du leen bàyyi lii wallahi al asim képp koo xam ne nii yaa nekk Sénégal te waxoo ci wallahi complice nga ci nga di sëriñ nga di koo man di doon complice nga ci parce que lii Sénégal gépp ci war a wax mu bàyyi doom doomi jaambur yi mu jàpp jàpp doomi jaambur bàyyi say doom ñuy taxawaal lii ñaaw na trop. d'accord ñaaw na trop ba fa kanam yàlla. Mm. jërëjëf. jaajëf merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk moom lay 88 à 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 continue leen bu leen tayal di aimer partager live bi na kër yi jóg ngeen euh, toppate live bi su ko defee rek waxtaan bi dina mën a yaatu live bi di wàcc ngeen daal di wootee. ci 88 628 73 13 wala ci 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 comme ni ma ko xewoon sànq li ñuy waxtaane tey bokk na ci euh, jamono juñ toll nii recours yi nga xamante ni tàmbali nañ ko tey foofu lee ca conseil euh, constitutionnel euh, gis na ni tamit kii di jeex Thierno Alassane Sall def na recours ngir Karim Wade daal di bañ a bokk ci élection yi ndax jàpp na ne double nationalité bi mu yor warut a bokk ci yi lay élection suñu sukkandikoo ci journal Le Bés bi moom aussi di xam na ni daal ni ki tey jile njortu na ni Amadou Ba dina def recours contre Bassirou Diomaye Faye euh, voilà ñi nga xamante ni ñooy euh, collectif yi nga xamante ni dañu leen daal di rëkkale ci parrainage bi jamono juñ toll nii te Mimi Touré ak Bougane Gueye Dany euh, jiite ko ñu nga ca diwaanu bitim réew ngir rekk Willy Pandé ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ak ñii di waa conseil constitutionnel ay plainte aussi dal na ci ndodd waa DGE ak conseil constitutionnel bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu daal di koy jël voilà ngeen continuer euh, topp euh, toppate live bi maanaam euh, bës kër bi daal di partager loolooy tax live bi di yéeg di bañ a wàcc ñi ci di jot notification ñëw di mën a ñëw di bokk ci li nga xamante ni rek mooy waxtaan bi Masoul bu fekkee am na ko ne ci ligne bi. ñu jël ko yéen i tamit mën ngeen daal di woote ah, ci 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 Binta Sarr ah, maa ngi lay ziar di la jaajëfal bu bu baax a baax. voilà euh, di jaajëfal Babaloo Aïcha Goudiaby ñu ngi leen di nuyu yéen tamit Pape Koumba Faye ñu ngi lay jaajëfal Mimi ah, nee na macha allah ñu ngi lay jaajëfal yow tamit bu baax a baax Mimi 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 bu fekkee am na beneen mbokk mu nekkaat ci bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam maam Diarra. maa ngi lay nuyu di la ziar Binta Sarr. waaw Binta Sarr bu ceeb maa ngi lay fay lu bëree bëri waaye kontaan ci yow rek yaa ngi jàmm. maa jàmm rek su ma xëyee jàkkaarloog yow rek damay kontaan. Mhm, macha allah. <laughs> macha allah. Mhm. <laughs> di uh, sama sama bi. keroog damaa nangu woon waaye te moom damay bañ. <laughs> Seydou Ly. Seydou Ly. Mhm. ne ko maa ngi koy ziar lu bëree bëri déglu naa ko bu baax a baax a baax. waaw dégg naa lu mu wax ci sama président de Cefal. yëpp benn lañ. dëgg la yooyu daal ak Pastef yëpp benn lañ surtout Déthié moom ñun ñëpp benn lañu parce que maa ngi nii bu ma ñëwee a ut rek maa ngi nii am naa trois bracelets bu bu bu kon mm-hmm. koy ñun ñëpp benn lañu. dëgg la. Mm-hmm. waaw di nuyu ñëpp di ziare ñëpp. Mm-hmm. su ma limee damay juum. di njëkkee ci Bassirou Diomaye Faye sama frère sama lekk. di wax ah, Amadou Ba xam lu muy def ko nag waaye xoolal Bassirou Diomaye fa moom ginnaawam bandang mm-hmm. séeréer la séeréer yi xam nga séeréer yi moom bëgguñu nationalité fédérée lii naa fi yow mi xam ne surtout dëkk njaga ñaaw nag ci ñebe ya <laughs> kon loolu moom mm-hmm. suñu ginnaaw bandang d'accord a ragal rek dañoo ragal rek waaye Bassirou Diomaye Faye nañ ko bàyyi luñ ko tojee ci kaso bi sax foofu sax du place am mm-hmm. comme ni ko doon waxee rek Bassirou ku yaru la ku xam boppam jàng fu mu war a jàngee xam du mu bëgg ànd ak Ousmane Sonko nekk ci politique bi waaye comme Ousmane Sonko ñu ngi koy teye ne lii ak la après Bassirou Diomaye Faye ñëw xam ne moom Sonko bu demul Bassirou mu ne leen door bësalan leen loolu moo tax xam naa ñu ne comme amuñu fu ñu jaar xaaral ñu jëm jàppanwaat fale loolu kese kese kese kese kese la waaye foofu moom luñ fa am ndam amuñu luñ ko kiiyee bu fekkee affaire nationalité la ñu bëgg a génnee kooku moom ginnaawam bandang ñun bëgg ñu yeneen nationalité ñun ay séeréer pire lañu Mm-hmm. waaw gëm suñu bopp waaw. d'accord. Mm-hmm. di ñëw ci ñoom mi ak ñoom Bougane man damay xool xam ne depuis deux mille vingt un ba léegi lu xew Sénégal moor yi ak lu ñu yàq ak li yëpp waa Europe di gis yooyu te ñu waxuñu dara dara dara defuñu dara est-ce que ñoom bu ñu demee def foofu di leen filipande nguuru kii Macky Sall est-ce que am nañu am na sens man sama gis-gis. Mm-hmm. yaakaar naa du am sens amuñu benn sens. parce que ñoom gis nañu dafa depuis deux mille vingt et un ba heure bii ngaanguñu yàbbiwuñu waxuñu dara kon ko jariñoo ñu dem foofu ñun li ñu waroon a def nañu ànd rek opposition bi comme ñu waxoon rek yéewi ñu dem jàppale leen booloo mooy doole man loolu laa gis noonu la ñu waroon a def waaye jariñuy dem ay kii ne dañuy def ay filipaan nguur gi man loolu moom ànduma ci d'accord di ñëw ci Karim Wade dugg na si la ak laala comme ñoom saatu kii nuñ ko waxee saatu waa dugagul Oscar uh-huh. ak joom Sidou duñ ko waxee rek ak seex boobu kii woon noonu dañuy sërémal xoolal dañuy kii nit ñi rek pour nit di xoolal di wax leneen élection yi dañ koy pousse man man sax maa ngi koy dégg su ma koy dégg sama xol bi di di di jeex élection bi fu ñu koy pousse duñ ko mos a pousse duñ ko pousse dañuy wax noonu rek pour nit ñi teel ko ne duñu jëli seen carte électeur nañu dem jëli carte bi su carte yi mooy suñu nganaay maam jaara ñun système bu bees la ñu bëgg ñun dañoo bëgg a ñib si de mhm. dañoo bëgg a ñib si ba sax Maroc bi ma nekk fii man damay gis ñoo xam ne dañuy dem jàng dem Europe jàng ji taxul bu ñu jàng pare dañu jël soit seen dëkk di liggéey foofu imagine loolu te ñëw ci Afrique la nekk xoolal Maroc du mu développé eh. mbéy bi encore fii sëñ dina mën a taat encore firnde yi. légumes yi dañuy frais léppay frais yi parce que ñoom dañuy nangu def ci tool yi di liggéey di béy di jëriñ seen dëkk ñoom dañuy dem jàng ba pare bu ñu jàng pare ñëwaat fii encore di liggéey bëgguñu dara foofu jàng kese pour jox ko kese waaye bu ñu paree duñ fa def sax seconde dañuy delluwaat fii di liggéey. am na solo kon ñun loolu la ñu bëgg. loolu la ñu mhm. bëgg. na Sénégal système bu bees la ñu bëgg système bu bees li muy sama président da cee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 628 73 13 ci numéro boobu wala ci 88 euh, wala ci 08 99 25 24 02 77 914 64 93 foofu ngeen di daal di jaar su ko defee rek di ngeen daal di mën a bokk euh, ci li nga xamante ni rek mooy euh, bi lay waxtaan bu fekkee am na ku ne ci ligne bi ñu daal di koy jël salaamaaleykum. allo. Aliou oui ñu ngi lay jëfal mbokk mi. jaara noo de. maa ngi fi alhamdulilah yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm ça va bien. alhamdulilah tur beeg fooy wootee. man la laal yoon ça laal yoon d' accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw dama bëgg nga waxaat ma kii bi nu mu tuddati thème bi. d'accord li ñuy waxtaane tey bokk na ci niki tey lañu tàmbali recours yi foofule ca diwaanu conseil constitutionnel ngir euh, candidat yi nga xamante ni euh, euh, recalé nañu leen ñu daal di dem foofule ngir ñu xoolaat seen i ay dossier beneen ponk bi bokk na ci Thierno Alassane Sall mi nga xamante ni jamono ci toll nii dafa daal di entamé benn combat maanaam fexe daal ba Karim Wade du bokk ci yile élection tax mu def ab recours ndax nee na daal mm-hmm. Karim Wade dafa daal di am double nationalité am Amadou Ba suñu sukkandikoo ci journal bés bi mi ngi daal di xam ne ni jamono ji ñu toll nii moom Amadou Ba tamit mi ngi daal di waajal def ab recours euh, ci kaw ki nga xamante ni rek mooy euh, Bassirou Diomaye euh, Faye ñii di Mimi Touré Mimi ak Bougane Gueye Dany ñu daal ëmb ñi nga xamante ni dañ leen daal di téye ci parrainage bi jamono ji ña nga ca duwaanu bitim réew ngir Willy Pandé président Macky Sall ak conseil constitutionnel ci parrainage bi nuñ ko daal di doxalee ndax jàpp xamante ni jamono jii mu commencé dal ci ndoddub DGE ak ñiy di waa conseil constitutionnel lii la ñuy waxtaanee laa li yoon ban jàngat nga ci daal di am. waa kii e, jaara affaire mhm. parrainage yi moom dara jaaru ci yoon. Mhm. parrainage yi dara jaaru ci yoon. Mhm. parce que ñoom dañu xamul ni ñu nekkoon ci candidat yi dañu nekk ay informaticiens. xam bu baax informatique. fii dëkk bi fi ñu toll dafa toll fa nga xamante ne nit ñi dañoo jàng. Mhm. kenn mënu fi nax kenn. mu loo jël clé jàmbur ba def ci loo ci war def te du ko xam. Mhm. ñoom Mimi ture woo yow nit Mary Teuw ñaan bu demee ba ñu ne ko yow nekkoo ci fichier bi te moom mu voté ci élection élection kii yii nu mu tuddee ci député yi passé mhm. mais xam nga ni li nekk ci fichier bi normalul ñoom ñi yor fichier bi di manipuler fichier bi defuñu lu normal gis nga nit ki nit ki da ngay da ngay def dëgg boo defee dëgg nit ñëpp seen xel day daal parce que daañu xam ne kii nii ci dëgg la ñu nekkee mais yaakaar nañu ñoom lu ñu def nañu duñ ko xam di bëlëfee parrainage yu nit ñi. Mm-hmm. di jaxase parrainage yi. loo dugal ñu ni diw nekku ci nekku ci yooyu dafa ñaaw loolu moom du yëfu élé loolu moom c'est pas de l'élégance mm-hmm. du élégance du dara loolu moom c'est du c'est du bassesse loolu dafa dafa dafa dafa dafa ñaaw rafetul ci dëkk Mhm. gis nga Sénégal Sénégal ak ah, démocratie bi dafay yàqu dafay yàqu yàqu yàqu te ñii fi na ñoo ko yàq ñoo ko yàq yàq ko wàcce ko ba ci suuf ba zéro. Mhm. kenn xamatul man des damay xool du ma xam sax lii lii di xew lan la. yow mhm. yow tu te toujours la question mais mais mais lii naka la mën a xewee lii lii naka la mën a xewee mais ngir yàlla war a suulee Badio Kabara ngir yàlla ak war a suulee du xale. mag la. Mm-hmm. du xale mag la te yaakaar naa ne ba muy jàng dem ay diplôme yaakaar naa ne dara toog di waat ni dara àtte ci dëgg dina def dëgg yaakaar naa ni dara war a ko woon tee mu nekk ci ci ci ci ci ci ligne boobu ba tax ëllëg du am way bu ñaaw. Mm-hmm. def na ñoom kee baa mbay mais parce que dara jaru ko fi xaalis jaru ko dara jaru ko fi ah dara jaru ko fi. Mm-hmm. man sama dignité dara jarul ma ko dara jarul ma ko gis nga nit da ngay gore ba nga xamante ni kenn du la mën a jënd kenn du la mën a defal lenn kenn du la mën a waxal dara. Mm-hmm. taxawal taxawal sa dëgg yenn yi dafa rafetul ci dëgg ñëw jaxase bugaat gay dani am na ñi nga xamante ne tey bu ñu mënee jàll ñoom maam booy jaww mais buggaan mën na fa jàll nañu waxante dëgg. Mm-hmm. man du ma bugaan dani du ma bugaan dani man je suis sonkolaise bokkuma Pastef mais je suis Sonko Sonko laa gëm Ousmane Sonko laa gëm changement laa gëm mais am na yi nga xamante ni dafa rafetul Mimi Touré Mimi tey bu bokkoon tey ci yéen tey ba génn tey bokkatul ci yéen ngeen daan da ngeen koy diiw ak da kay xeex ak da ngeen koy lii dafa rafetul parce que parti doone rek da nga fay bokk rek ilaa yow mi dini tamit mhm. mais Mimi nga nangul ko kaa nga bañ nangul ko ka jigéen ju dëgër la dañ waxante dëgg. dëgg mhm. jigéen ju dëgër la te xam fi mu bokkoon xam na ñi mu ñan la bu fekkee ne yéen da ngeen naan da ngeen di humilier Mimi wala dara mun leen di humilier waaw Mimi comme fulaak faydal ku am fulaak faydal la te ku xam li muy wax la. Mhm. te bu soobee yàlla xam nga yëf yi da ngay yaakaar ne yow da koy def mu yomb quoi da nga koy def nii rek mu yomb. fi ñu toll nii yëf yi yëf yi fi ñu toll dalee dafa leen dépassé da leen dëkk bu dul jaar ci dëgg rek dëkk ba du dëkk ba dem gis nga dëgg moo lal yëpp njuuñ njaaj moo fi jeex fi ñu toll nii njuuñ njaaj moo fi jeex amatul foo mën a jaar rek pour njuuñ naa nit ñi rek amul déedéet yow mm-hmm. dëkk ba nga xamante ni kenn du faju ah kenn du lekk kenn du naan ah looy wax yaa ngay gaaral nit ñi ñay yàq ñay yàq ñay yàq kan ma fi yàq gis nga nit da ngay mat li nga doon te bàyyi bàyyi yenn wax yi yenn wax yi dafa baaxul parce que yenn wax yi boo ko waxee si sa kaw lay dellu si parce que yow doonu nga mel. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi affaire kii nu mu tuddati. Karim affaire affaire ah. Karim wala. ah affaire Karim ci nga bëgg ñu dem. non yow kay yaay xool. ah pour waaw bu neex rek nga dem ci. <laughs> <laughs> Ah. léegi léegi. léegi ñu ne Karim léegi dafa am nationalité. Mm-hmm. waaw parce que xam nga kii bi dafa ni ko am nationalité mënut a mënoo nekk président il faut nga renoncer benn bi ba pare soogam nekk candidat. effectivement. ah parce que Thierno Alassane Sall bu waxee loolu xay na am na fu mu ko teg. Mm-hmm. am na fu mu ko teg sànq dama dégg sànq ko dugg sànq di wax ci Ousmane Sonko naan waa Ousmane Sonko bi muy xeex ak fii ba muy xeex ak lii ba muy xeex ak lii lii li ko dal lu ko teg. Mm-hmm. Ousmane Sonko li ko dal li ko teg mooy lan bëgg dëkkam. Ousmane Sonko li ko dal lu ko teg mooy am fulla ak Ousmane Sonko li ko dal lu lu ko teg mooy mooy bëgg senegal bëgg senegal gu soppeeku bëgg senegal jóge ci ay njuuj njaaj bëgg senegal nekk senegal ba nga xamante ne ku nekk di ci gis sa bopp. fi mhm. ñu toll ñaari Sénégal ñaari Sénégal senegal bu wàll bale ak Sénégal bu wàll bi Sénégal bu wàll bii nag mooy ñi nga xamante ne ku wax ñu tëj la ci kaso bi ku kii ñu jàpp la ku kii ñu dóor la ku lee ñu dóor la Ousmane Sonko dafa bëgg senegal yépp nekk benn kuy wuyoo xam ni sénégalais lu ñu yëkkati lu ñu yëkkati nga bokk ci lu ñu wax nga bokk ci lu ñu def nga bokk ci président ba nga xamante ne du nëbbatu du nëbbatu du làqatu bu ko neexee léegi dawal bi vélo dem ci benn marché taxaw fa xool marché bu nu mu tuddee ndax maire baa ngi liggéey wala liggéeyul président boobu la ñu soxla. Mm-hmm. président boobu la Sénégal soxla président ba nga xamante ne da ngay toog ba si yàgg rek mu ne jameet fenn toog fa di xool ndax ña ngi koy liggéey wala liggéeyuñ nga xamante ne bu boobaa. ñenuy voter ay budget ci assemblée nationale ku nekk daa liggéey par la force mhm. daa liggéey par la force par la force parce que président ba bu fay ñëw du la ko yëgal doo làqatu rek ñuy làqatu rek balaa nga leen di gis yàllaa xam waaw mhm. Sénégal dafa war a changer dafa war a changer te Sénégal ci loxo Ousmane Sonko lay changer bu sobee yàlla kenn mënu ko teenee candidat kenn mënu ko teenee candidat amul condamnation sàccul deful dara dafa dafa blanc comme du neige mooy sunu candidat un point un trait. d'accord la Lyon. Uh-huh. Mm-hmm, ñu ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax. ak ah, kii nu mu tuddati bu bu kii bi ah, nu mu tuddati recours yi ñu def si si kii si Diomaye fay Basirou d'accord. recours yi mm-hmm. waaw recours yi ñu def si Diomaye fay yooyu yëpp ay ay ay kii la parce que ñoom fi ñu toll nii nit ñi dañ leen dañ leen paqueté ba pare ba teg leen ba pare. xam nga nit ñi nga xamante ne fi ñu toll nii yow leer na la leer na la yow élection yii di ñëw. Mhm. dan lay gañe dan lay gañe ñu rafetoon si rek moom moo gën recours recours du tax Diomaye Faye bañ a jàll Diomaye Faye day jàll Diomaye Faye day jàll Diomaye Faye amul condamnation Diomaye Faye amul dara ah yenn ay complot la woon yi nga xam yow ba ngeen doon comploté ci Ousmane Sonko ba tey ba tey ba tey ba tey ban condam ban condamnation nañ def ci Ousmane Sonko. man condamnation nag def ci Ousmane Sonko nañ wax nga dëgg gis nga nit ki da ngay gëm li yàlla nangu boo gëmee li yàlla nangu doo sonn sa xol du jeex mais boo gëmul li yàlla nangu tout temps mooy indi recours yi wag mooy indi daw fëleeg mooy indi dem fëleeg dem fële te yii def ka fi jarul jaru ko fi. Mhm. Diomaye Faye candidat daal wasalaam jaara. merci beaucoup yoon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Ah, voilà 88 628 73 13 08 99 25 24 02 wala ci 77 914 64 93 su ko defee rek jigéen daal di mën a bokk ci waxtaan bi bu fekkee am na keneen ku nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum allo. voilà ci numéro yooyu ngeen daal di jaar su ko defee rek di ngeen wax seen xalaat ci li ñuy waxtaanee tey jilee bokk na ci recours yi nga xamante ni tàmbali nañ ko foofee euh, ca doyen conseil constitutionnel waaye ñoom itamit ay plainte mi ngi commencé dal ci seenu ndodd ndax jàpp nañu daal anam bi ñu defee parrainage jaaduwul yoon ba tax na euh, daat nañu jébbal ab plainte euh, foofu foofule ca ca ca procureur beneen nëpp recours bi nga xamante ni njort nañ ni tey dinañ ko daal di def ñeel candidat bi di Amadou Ba nee nañ daal. Euh, bu ñu moytuwul ni ki tey jii dina dina def recours contre ki nga xamante ni mooy ba Bassirou Diomaye Faye Thierno Alassane Sall également moom aussi mi ngi xam na ni dina def recours contre Karim Wade ci double nationalité bi nga xamante ni moom la daal di yore voilà bu fekkee mbokk maa ngi ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah Moussa Bane. Sa Touba ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax. Moussa Bane noo def. maa ngi fi alhamdulilah yaa ngi ci jàmm. ngi sant ñu ngi bu baax alhamdulilah ndaka waa Touba ñëpp a ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant Serigne Touba alhamdulilah di siyaar sa gaaya yëpp. Mm-hmm. ñoom Serigne Ndiaye ak ay sukaar ak ay ñoom Soxna Xadi mm-hmm. di nuyu ñëpp daal di la siyaar yow. delloo ziar delloo ziar bu wér. démb moom démb démb moom da nga doon supporté moom démb. <laughs> démb moom dóor nga sa mayoo jàpp sa mot sa njàmbur. démb maa ngi ci sport bi. démb maa ngi woon lool loo loolooy baax baax bi de. waaye xam nga par euh, euh, 2A TV moom mi ngi fépp actualité bi comme euh, daal di profité waale. daal di koy euh, waxaale ñi nga xamante ni ñu ngi ci euh, ci ci panel bi dañuy def euh, chaque match du Sénégal dañuy def benn émission. boo mhm. xamante ni ñu ngi ko daal di duppee Focus CAN waxtaanee football bi ànd ceek suñu ay consultant suñu ay naataango journaliste sportif bu ko defee rek ñu daal di waxtaanee CAN bi voilà. Mhm. Satou Ba ñu ngi lay jëppal bu baax a baax yow rek la ñuy daal di déglu. Aïcha. Mhm. léegi léegi leeralaat ma ponk yi ma dégg ko. d' accord li ñuy waxtaanee tey sa Touba waa saa foo nekkoon ba déglu woo ponk yi. man kay nekk ci tey rek. sàng doon naa déglu waaye damaa jékki-jékki nekkaat ci tey. d' li ñuy waxtaanee mm. euh, euh, Satou Ba bokk na ci tey li nga xamante ni euh, moom la journal bés bi le jour xëyee ne jamono ji daal njort nañ nit ni ki tey jile Amadou Ba dina def recours contre Bassirou Diomaye Faye ngir élection yi ñu dëtmal Bassirou bañ a nekk candidat maanaam bañ a bokk ci élection yi beneen ponk bi ñuy waxtaan waxtaanee Thierno Alassane Sall taas jamono ji moom tamit dafa am ab xeex bu nga xamante ni tàmbali na ko maanaam double nationalité Karim bi nga xamante ni ñëpp a ngi koy coow boobaak léegi moom euh, Thierno nee na dina def recours ngir Karim Wade aussi bañ a bokk ci élection yi ndax dafa am double nationalité ah, beneen ponk yi bokk na ci Mimi Touré Bougane Gueye Dany jamono ji ñu nga ca duwaanu bitim réew ngir wili pande euh, président Macky Sall waaye tamit euh, ngir rek daal di xame xamel ñi nga xamante ni askan woowee lii xew fii ci Sénégal rawatina parrainage bi nga xamante ni daanaka gis nañ ñoom la ca daal di xew ne teguwul ci yoon ah, ponk yi loolu la woon saa Touba ban jàngat nga ciy def. ah Amadou moom mu ne day duggoo recours moom. waaw nee nañ ah njortu nañ. ban journal ban ban journal la ko wax journal ban la. bés bi le jour. la ko moom ñooñu. man bés ko ah Mamadou Ibra la mën a doon. Mamadou moo jekko jekke daan ne wi ni réew mi doxe ni réew mi doxe mhm. boppam wax daan fekk naa Amadou Ba. xamoon naa ne sax xamoon naa ne journal bi boo ko waxee genre boobu rek lay doon Amadou Ibra Kane ku ko xam man ci ay wa journaliste la macha allah waaye ba mu jógee na day dimbali réew mi jàpp na li fi nekk normalul mu aw mu aw yoonu boppam. Mhm. ba mu nekk mu dellu ci mu dellu fee ñooñu journal yooyu dong la mën a doon ñooñu daanaka duma ma leen déglu tey dama leen a gëmut ndax yaakaaruma ne ay nit ñuy wax dëgg lañu bu fekkee ne tey eh, Amadou. moom lañ war a laaj ba xam moom lañ ñu moom lañu war a dugal dugal recours laaj ko ba xam moom naka la bëgg a yore réew mi ndax nit ñaa ngi koy ji ñu milliard kenn xamul milliard nu milliard fii ku fi am na ku fi am kër nday am nga kër baay mënuñu wax mun ba léegi ba fii ma daal kenn xamul kër ndayam ak te Sénégal baaxoo na buñ nee saa Touba ñu ne la ma nga Touba wala bu nee maam jaara ñu ne ndakaar wala wala xombal mhm. bu ne Macky Sall ñu ne bu ne Macky Sall ñu ne Fatick dégg nga li ma la mhm. léegi nag bu ñu demee ba ñu naan Amadou fu mu dëkk xamoo Amadou da nga naan da ngay dégg naan Amadou parcelle. Mhm. ati Amadou ak ati parcelle ku ko xooloon yaakaar naa Amadou mooy war mag parcel ah nga xool ba nga wàññi ko xool ban sañcee ban sañcee ban sa ban ban ban sañcee. Eh, parcelle ak léegi yaakaar naa Amadou mag parcelle. nit nag mënuma dëkk ba pare. ah mi euh, euh, mu nekk Amadou mu lontaa Amadou nag judduwul nag. kan. Amadou judduwul saa Amadou comme chaque jour ma la. gi sax. Amadou Amadou am Amadou defi ne bu noon bu noon ati ati nit juróom-ñaar fukk la yem bu yeboo ay mbokkam dajaleeg nag ku noon senegal fii say at juróom-ñaar fukk la yem bu yeboo ñu waajal ko moom wala mu fas yéenee féetewoo di jàng ko julli te xam ne moom mu ngi waaj. d'accord ñu mag ña mm-hmm. boo ko ne jàkk xam ne kii du gone Amadou laa ay atam ngeen xool parcelle Amadou mooy waram ak parcelle kon moom mënta juddoo mënta dëkk parcelle dafaa ñëw rek mu neex mu am fa kër ba ca des mooy moom buy dugg recours ban recours lay dugal ñoom man daan wax dëgg yàlla man xam naa nit ki ragal sax ñu xam ne daa ragal waaye àgg war naa dépassé boppam foofu ñi fi nekk nii maanaam buqat nañ buqat boo xam ne liñ bañ for force day am mooy. Mm-hmm. Mm-hmm. allo Sarr am na seen ñii seen mbir daa wóor Sénégal ñoo leen wóor Sénégal yi ñoo leen wóoluwut. Mm-hmm. maam Bousso. Mm-hmm. ñii yaw ma yow mii buñ jekkoon jekkan na maam jaara la ñuy wooteel léegi nga dégg ñu commencé wax say wax commencé lay lijjanti ne dèjà defoon na nangam ak moom nangam commencé lay créer ay problème mm-hmm. aw fit ci boppam lañ amut man na xam naa nit ragal waaye àgg ci mboqat góor war na ko dépassé boppam. am na loo xamante ni nii nag bu ko Sénégal yi toogee di ko xool loolu moom problème mu la. kuñ tudd nga ne du dem kuñ tudd ku bokk Pastef wala kuñ tudd ku am yaakaar nga ne du dem loolu boo ko ci jom nit kay bu fekkee ne am nga fulaay mën a wàcc am nga fulaay ne da ngay politique la daje ko ne ci bi terrain bi mais pourquoi ragal gi wala ñoom ñoom dañoo jàpp ne dañoo moom Sénégal ñoom moomuñu Sénégal seen bàyyi moomuñu réew mi ba ñuy de jekke-jekke di xool ko war a bokk ku wóota bokk ñoom a bokk ku wóota bokk ñoom ñoo ñu la ñuy laaj ba xam ñoom ñooy ñan ñoom sénégalais leen ba léegi xamuñu ñii ñooy ñan am na loo xam ne ne bu ko sénégalais yi bëggee doxee kenn gën leen a ñàkk fayda ñun ñoom ñu lu tax daal ku yorub xaalis réew làmmañ ñu bàyyi la nga ratatate ba ba jàpp ne yaa moom réew mi yow ñu ngi la yow ñu ngi la war a lijjanti yaay kan ba léegi ah taxaw naan da da ngeen di dugal ay mhm. ah yàq Sénégal lépp bépp ba Sénégal dana di yàqu ba léegi yaa ngi ci biir ñu koy yàq ah nag wax dëgg yàlla dàmbaak géej gi mënoo caa génne bu boo boo boo xasawut damba ak géej gi laa mënu caa génn benn bi ne xasawut la ne ca dàmba ga mooy nekk bi nga génne nañu waxante dëgg Amadou na gëm yàlla te xam ne bu dee moom rek xanaa xam ne Amadou bu saa xam jeexe dëgg des man saa Touba xamuloo ko musuma dégg dégg Amadou Ba wax wax boo dépassé waaye Amadou da ko séq ak ñoo xamante ne ni ñoo moo tax fi ne bu demee ci mu dajale day mel ni kéwél gu tiit kéwél gu jaaxle day xiin xiini rek comme comme ku ñuy faj ci wéragul boo ko seetloo mbooloo saa fu ne buy xool day day xool mel ni ku wéru li naan dof loo ko faj faj maanaam mu def ca xooleen wa waaye fi ne Amadou bu toogee ci mbooloo mu bëri da nga gis muy xap xappi ay moom ah, xamul problème nit ñi ko bëgg a dugal ci ah, problème ah, mais Amadou xamul problème ah kan moo nekk guerrier leen ma vaccin yi mu sol sañ sa ba jeex ngeen génn vaccin yi tuba ji chaque jour day mbaq max yi muy sol nga génneel ma ko nii muy dem nga xool ko baax mbaq da ngay xool kanam gi ngay xool tubay ji day ras kanam gi ngay xool rapport la am ak ak ak ak ak ak Amadou ah? bi moo aayu hmm? rek <laughs> ah bi aay na ki ko sol la sëñ bi da ngay utab da ngay utab ko ay garaam mbubb bu fekkee mënoo sol dara la jot ñu xam ne kilifa nga mag nga boo bëggee ay costume normal solal ko Sonko mu takk ndigg li di waaxu nga xam ne kii góor la góor buy dox ci mbedd bu la rombee jigéen ñëpp xam ne kii góoree dem waaye sëñ bi jaar ci biir gone yi jigéen yi jigéen yi jaawal laak sa bopp euh, seen morom loolu d'accord ma loolu mm. Sonko dalay romb nga xam ne góor yàllaa ngi nii Sonko ngay seen mu taxaw di wax nga xam nit nit a ngi nii ah fi ne ni ñoom ñii ñëpp a ci yem barke sëñ Fallou Mbacke liñ bëgg mooy jàpp nañ ne askan wi ba léegi am na lu leen lu leen desal ci bëgg mm-hmm. askan wi desee la doon gën a bëgg xoolal mag yi bërki démb yow ñaari bis yoo taqale ngay immigré booy topp na naan la sonko sonko waaye soo yar daw waaye nag moom ay waaye ndeysaan yéen nag Sénégal dimbali leen Macky Sall mu ngi leen di neexal chaque jour mu ngi leen di neexal ngeen di ko ngeen di ko ngeen di ko ñàkkal kersa ah am na loo xam ne même boo ko ah, mais li ngeen koy def dafa ñaaw bàyyi leen Macky ci mbedd yi di immigré dara ngeen di ko ñaawal bàyyi leen loolu yéen Sénégalais yi ah, respecté leen ko tuuti ah comme mu ngi leen di neexal. waaw loolu tamit sax ah, waaye Macky tamit Macky tamit neexal bi nga. Mhm. maam Diarra Macky Sall neexal bi mu war a neexal Sénégalais yi mooy mu génne Ousmane Sonko ci kaso bii. Mhm. moo gën ñaari bis yu taxale nga di ko inauguré bi ma gisee nit ñi génn dama ne waaw lan moo xew li tax mooy yéen leen di andi lu bees lu ngeen xamut du ngeen rendre da ngeen da leen war a rendre compte lii mooy lan ay bis la leen andil yu ñu taxale kepp teg ko ci mbedd mii ngeen daw topp ci. la ca nekk mooy la waroon a nekk laaj bi mooy lan la la dikke foo jëlee xaalis bi ñu ci def ndax ndax ndax Sénégal yi lii mooy li mënta ñàkk ci ñoom waa quatorze mille milliards yi Macky Sall yoreel boo xam ne ko war a bàyyi fi Sénégal bor boobu kan moo koy fay te bor boobu yii bokk na ci ay BRT ay TRB ak stade Abdoulaye Wade boobu yépp ci quatorze mille milliards yi ngeen war a fay yow sa doom incha allahu rabbi boo xefee bor bi Macky Sall bàyyi fii sa bor bu doom boo xefee dina ci fa wala yow sa jëmi bopp tey da ngay liggéey maam di def sa bopp di liggéey di fayaale kees googu alal jooju quatorze mille milliards Macky Sall bàyyee ko fi ci bor yéen Sénégal yi au lieu que ngeen lijjanti quatorze mille moo tax Macky Sall yóbbu bor bi mu yóbbu ko ba agsi fii mm-hmm. leb boo fa si boo boo bor fay ku la neex bu la fomm bu la neex lebal waaye boo xoolee tey patriote yi diggante ñaari fan yi ñu lay wax ñaata million lañ dajale daanaka xaaju milliard am na fii ku nekk ginnaaw France gii nga xam ne bu ndox mi jeexee nga àgg ne moom naka jekk xolam bi daa bon ci patriote yi te moom rek defe naa cent cent vingt cinq defe naa xaw ma ñaata la ne France joxe ko xanaa moom bu déggee loolu day daal di day daal di dem ci géej gi rek ray boppam nit ku iñaan te xol bi bon am na xeeti teraanga yoo xam ne boo ko suñ borom dogalee ci nit ki ngay bañ chaque jour yàlla di di la wan ne kii la nit ñi bëgg xanaa bu boobaa moom fan la nekkoon moom nee na parti bi patriote yi nee na ñii dañoo réew lan moo tee bi gars yi génn foofu bi bi ñu demee di dajaloo di génn xaalis boobu lu tee moom kon moom mooy làkkatu ji ak ginnaaw ay téléphone di wax lu tee moom moom mu bi ga bi xale yi dajal dajalowee di yëkkati ab xaalis ngir jàppale ko parti bii léegi lan moo tax moom mi nga xam ne loolu da koo naqar lu tee mu dakk morso xongu daane li ngeen defaru leen ko def kon moom xam na ne benn cin ci ñebe la ñiy yàq ñiy defar daa ëpp ñiy yàq moo tax Ousmane Sonko ba léegi suñ borom mu ngi koy dimbali fii wan ma fi ban candidat moo ma sa taxaw fii senegal na dajale leen ma huit millions yoo xam ne dafa dem ci kër yi wala nit ñi jóge kenn ku ci nekk dëkk dëkk dem di ko joxe buñ doon laaj Macky maanaam Amadou Ba mii buñ ko doon laajal buñ ko doon laajal cent cinquante mille francs maanaam benn waaye bu bokk ci ñoom moo koy génne joxe waaye boo duggee ci benn kër comme nga dugg ci kër yi naan léegi ku bëgg Amadou Ba joxeel nangam maanaam nga yor kël mel ne kuy maajaal di nga dugg téeméeri buntu kër ñu naan la sarax ba dem na nga dugg genn kër ñu jox la téeméer nga demaat yeneen téeméer ñu naan la sarax ba dem na nga ñëwaat ñu jox la 1000 francs kii nag nga xam ne sëñ bi diggante ñaari fan yi nit ñi dajale ci xaalis bu bëri loolu doo ci seet yàlla nga xam ne kii yàllaa ko dimbali yow mii nekk ginnaaw France bu ñu waxee ngay bokki sa xol bi maanaam xol bu bon bi nga amee Ousmane Sonko ak patriote yi te patriote yi mooy ñoo xamante ne nii loo leen laaj ñu génn joxe ko ñooñu boo leen dénk réew mi ngay war ngaa rafet njort na ñii nañ fas yéene def réew mi ñi nga xamante ne ñoo fas yéene wut defar réew mi mooy ñi nga xam ne dañuy dem ci bitim réew lebbi fa xaalis ñëw def ko ci ñàkk fayda Séné bàyyee Sénégal yi ay bor senegal yi di am problème loolu mooy wax ji. d'accord mais boo gisee ay gone yi dajaloo di dimbali seen ñoom seen biir xam ne liñ mën a mën a defar seen réew mi ñoom a nañ ko defar seen bopp. ak noo mën a mel ak foo foo mën a far war ngaa rafetlu loolu même boo bu ngeen bokkul gis-gis wala boo ko leen mais bu ñu waxantee dëgg soxna jaar li xew ci Sénégal gi xam nañ ne Ousmane Sonko Sénégal yi xam nañ ne bu ñu ko dénkee réew mi mais ñii ñëpp ci gis mu ragale oto boo demee kër mu ragale fay oto koo gis bu leen wax kër danaa la waaj ay ay ñaar ak ñett Ousmane Sonko nee na la barki dem génn kër laa am ba ma ko noppee fay yàggul ñoom ñi ci def ñëpp talim liggéeyal Sénégal genn wàll ñoom liggéeyaluñ ko Sénégal 15 ans nga def ko impôt kenn mënu laa topp ñeenti mètre carré ñoom ñi fi nekk nii koo ci laaj mu wax la ñaari kër ñetti kër kër goo ca dem seet fa ay parking oto cen doom yi doo nga doxantu oto yoo xamante ni daanaka moo oto Ousmane Sonko di yi am nañ ko fekkee nañ ko benn ministre nanguwul woon a ñoom ñëpp a jëm kenn nangu ta dem ci plateau télé yi koo ci évité du ñëw ñenn ñi dem nañ ci nëbbatu ji génn gisatoo kenn génn ci dëkk bi dem ba am ak dal kenn ku ci nekk di bi di di takki rajo fi ngeen takk seen rajo yi insha allahu rabbi 2024 na ngeen ko fa takkaat ni ngeen amee ful la nekk ci dëkk bi dafa tata mbedd mu ngeen nekk lu ñu sori sori na ngeen fa àgg wax ak ñoom ba xam lan di dégg ci sénégalais yi ki nga xam ne da yor alal sax Macky Sall bu yor ay ay malate xaalis di dugg Sénégal di dimbaliwaate du tee muy dégg gars yi naan ko Sonko fii lu fi yàlla may day jeex yàlla lim la joxoon xamoon nga ne dina ko dénk da koy nangu jox ko keneen gënu fi kenn ñun ñëpp ñoo bokk dëkk Sénégal ku fi yor normal ñu ne ñu ne la nga yore baaxut waaye amoo maqaamam yore fi lu bon te la ko wax Macky Sall am na lu mu def ci lu baax waaye am na lu mu fi yàq li Macky Sall yàq Sénégal yàq googu lañ bëgg mu arrêté man damay dem ba ne sax est-ce man Sonko bu yore réew mi man sama xol bi du ma ci dégg ma naqari ndax sénégalais dafa sénégalais dañoo xas yeewu ba pare. te doxin bi ñu dox mooy tooba saxal mbaa ma sulli maanaam temps dañu may Macky Sall ni may ko 12 ans muy liggéey tooba mooy damay def léegi tàmbalee ñooy tàmbalee jariñoo léegi mu ngi mel ni nga taxawal dara entreprise daal def naa ci ñaanga mi million waaye balaa mat ñetti fan moom li ma defoon daa a Sénégal yi la ñu a lu nañu ko que li mu daj dafa ba dem ci kaso bii d'accord fi may jeexale mooy. Mhm. waaw. waay euh, yéen des est-ce que temps du jeex. non demal demal très rapidement ñu déglu. <laughs> beneen ba am na boo doon waxaat léegi. Karim Wade euh, Thierno Alassane Sall. day def recours. Karim Karim Wade. Mhm. Alassane Alassane Sall mooy kan. Thierno Sa euh, Thierno Alassane Sall la ci ci présidentielle 2024 yi ñu dëtmal jàll na ci parrainage yi sax également. waa Karim. Mhm. maam Bamba sama mbokkum sama mbokkum dëkkandoo la. Karim Wade xaadim maam Bamba xaadim sama mbokkum dëkkandoo la. Mhm. Thierno Alassane Sall moom buy wax tey boroom xam-xam tey wax Sénégal yi di ko dégg li mu li mu war a njëkk a wax mooy ñi bëgg a éliminer ci élection yi te ñu war a dem te dara doxul seen digganteeg dem nañ lijjanti ñooñu foofu moo doon wax ji. Mhm. Karim dafa dem élection yi ñu jub ñu jub élection 2019 ñu xañ ko ko ba bokku ci. Mm-hmm. ña ko ko xañoon ñoo jékki-jékki na ko ñëwal bokk ci élection yi léegi nag lii problème bi mooy bu fekkee ne alal jooju dañ koo da koo jëlal Sénégal cent trente huit milliards bu fekkee da koo jëlal Sénégal alal jooju na ko fay Sénégal doog laaj réew mi bu fekkee alal jooju dañ ko tuuma woon Karim Wade ñoom di ko ko tuumaaloon nañ gën daan ne ba ñuy wax ak Karim boobu waxuñu woon dëgg dañ koo bëgg a xañ élection yi dëgg bu réew tey dana leen ëllëg. aw teeñ nag boo ko nee am na lu gën a yaatu bopp danaa laa déedéet ndax ab bokk ci lay dund ba dee te du ko te du ko jóg waaye ñoom ñii koo ci wax waxee ëllëg danaa laa ëllëg mooy lan mboolem ku fi nekk di triangle di jublan bu nguur gi jeexee da nga rendre Sénégalais yi compte mm-hmm. ndax ñun yuruñu lu ñuy pasar pasaree Alassane Sall bu fekkee ne maanaam borom xam-xam nga wax da wax ci bii ba pare doo wax ci beneen bi wala nga a ñaar yëpp wax ci booy wax mbirum Karim Wade dangaa war a njëkk a wax ne ñii fi nekk di seppi nit ñi naan kii ak kii war a dem ak kii ak wër te bokk loolu ngeen war a lijjanti boo fi ne affaire koo ci wax danaan da du bokk waaye léegi yow du bokk du bokk du bokk gi mooy lan du bokk ak du ñu ko nangu gi mooy lan xanaa dafa doon loo xam ne yéen dañ leen di morceau wii yéen moom ku leen neex ngeen sédd ko ci réew mi di mu noonu de lépp ñoom ñoo bàyyi xel Ousmane Sonko ne moom lañ fas yéene voté élection 2024 yii ba ama maanaam ba ba Diomaye Faye mii sax nit ñi amaale si moom yaakaar ñu ngi commencé defaat yeneen i pexe seen pexe yi gis nga pexe la si Abdoulaye waxoon rek ay pexe yu kër. boo ko bëggee yor loo xëy lal di nga ko gontu lal yi fu may xajaleen ma ma jàll nag nu may def ba jàll bokkul xajaleen ma ma jàll koo koy koo dégg mu di ko wax gaa yaa ngi koy xalal mm-hmm. waaye fu may jaar ba jàll nag mooy ku def lu bon dong ñoom nag foofu lañ toll mooy fu may jaar ba jàll ci la ñu ne mooy naka la ñuy jàlle tamit lu tax ci lu tax ci Ousmane Sonko du bokk ci élection yi ngir lan mooy dafa am lu ne suñu kanam loo xam ne dañu ko war a lijjanti mm-hmm. Alassane Sall lijjanti loolu ba pare Karim nag bosam mook Sénégal yi la ñun ñooy fal de ñun yoratuñu réew moo xam ne da nga fiy ñëw di fontoo nit ñi daqaareetul nun yeewu nanu lu gars yi xam-xam nañ ko fii nga fii gis gone goo xam ne mos na million million nag boo ko mosee gars yi bëgg laa delluwaat ci ay trois cent mille da ngay lànk ba tëdd ci ñag bi mhm. ñoom ñii mos milliard xam nañ lan mooy milliar sénégalais yi seen jëmmi bopp xam nañ ne milliard li man lan la ndax sénégalais yi dafatuñ katakay na wuñu ay nit la ñuy wër péng daroo sàng waaye amul benn sénégalais buy nelaw gone gu ndaw boo ko woon tey mu wàllu ci politique loo xam ne da nga naan kii xamu ko foofu da dóor ngeen seen loxo cëkk ba des mooy ñee ñoom bugaan ngay dana yéen seen bopp bugaan ngay dana yaag Mimi Touré jëru ngeen di sonal da leen ñëbb si waat fii ñii duñ ay dafa am lu ñuy jomb man nit ko am lu muy jomb moom ngay kalaame muy ragal naan man de sama nawle yi bu ñu ma déggee naan maa def lii lii ma tuumaal boo ko sama nawle yi déggee ñii xamuñu nawle ñii amul ñii boo dagoon boo daggoon ah. nga ne Mimi ak euh, Bougane ñu def lan. dama ne Mimi ak Bougane nañ lagg te ñibbisi <laughs> nañ lagg te ñibbisi ki ngay kalaame mooy maam jaara def na dara naa dem ci ay bokkam kalaame maam jaara mhm. bu ko déggee dina ne ah man de sama ngor mayuma lii wala naa fexe ba liñ may wax ma ne du moom nga xam ne yow am nga looy calculer mais ñii xalaatuñu ñii boo daggoon ndoxum say génn dara du génn. as ngay waxal ñii xalaatuñu calculer wuñu la ngay jéebaane ñoom li jëndiwuñ ko de xanaa eh, eh, eh, journal France boobu bi ci xaay di wax bari ki de mu naan regretté wu dara ci li dal Ousmane Sonko moom mi yor réew mi nga xam ne ginaar sax bu feebaru ci dëkk bi da ko war a faj nit bu nit bu damoon ci dëkk bii war na koo rendre compte boo doon dox pont jam la ci dëkk bii am na ci responsabilité ku toll ne Ousmane Sonko nga xamante ni moom la Sénégalais bàyyi xel nga koo xam ne toj nañ otoom. xëpp ngeen ko liggéey mu dem tëdd ka barricade ko cinquante cinq jours toj ñaata yoon faara birisam di ko ñuqat di yóbbu mel ne ko yoon mburu mburu mu wow fu la neex yóbbu di ko di ko fa yóbbu nga ne loolu regretto ngeen am da ngeen di kalaam ku ngeen di kalaame ay nit ngeen di kalaame ñuy am lu ñuy xalaat ñii xalaatuñu ñii xam ko luñ xam gat sa gat sa geneen Ousmane Sonko waxam ñoom gat sa gat sa googu lañ xam rapport de force lañ xam Macky Sall nag bëgg Sénégal yi bëgguñu bëggatuñu li xew ci seen réew ci yàq dara man saa Touba fi may jaaxle message bi may lancé mooy. Mhm. bu benn sénégalais am xalaatu yàq dara. BTO stade Abdoulaye Wade lu mu ci manti doon lu ngeen yàq seen alal la bu leen gën di xeex jël leen seen carte d'identité yi ngeen tekk def ko seen poos mu jarale seen carte d'identité seen carte d'identité moom na la jaral bakkan moom carte d'identité moom na la jaral bakkan moom waaye bu leen xeex bu leen xuloo man sax ànduma ci Macky Sall génn ngeen di ko yuuxu sax man àndatuma ci loolu ndax quarante quarante deux jours a ko fi de sa xaw ma quarante et un jours maanaam weer ak fukki fan ak benn moom xale bu jigéen boo ci dig ko dañ lay maye mu ngi déclaré dëkk bépp naan am naa jëkkër léegi nag na réew mi mu jékki-jékki kooku moom bu leen xuloo bu leen xeex chaque jour ñu ngi leen di provoquer ngir ngeen ñuus leen si métier métier métier ndax xeex bi mu ngi ca biir dofat ya waaye bu ngeen voté ba pare nag seeni vote sécurisé leen ko. Mm-hmm. pour sàcc vote yi moom fii bu leen ko nangu. bu leen nangu kenn di voté ba ngoon jot du ñu sàcc seen ay vote mm-hmm. Amadou Ba parcelle gée bu ko maanaam bu bu demee ba ngoon maanaam ban heure la ñuy wàññi carte yi. Mm-hmm. ça dépend 18 heures. ban heure la ñuy wàññi carte yi dañuy tëj bureau de vote yi de normalement 18 heures. ba 8 heures bureau de vote yi war naa tëj. 17 heures 59 minutes 59 secondes. ngeen dem xool bureau ba Amadou wootee bu ko gañee ngeen jox ko réew mi dama kii barki sëñ Fall yéen huit laa la wax dix-sept heures cinquante neuf cinquante neuf secondes ngeen dem bureau ba Amadou woote bañ ne la fii la wootee ngeen wàññi carte yooyu donc xool ba xam gañe daf bu fa gañee ngeen jox ko réew mi buy Ousmane Sonko ak ñoom àndal jur ñuy campagne yi toog leen seen kër yi bu leen neexee ndax li yàlla def ci xol yi leer na ba noppi waaye man moom danaa campagne man moom danaa campagne xam nga nu may campagne. Mm. li Aliou Cissé daan def Aliou Cissé 2002 xamutoon tus waaye daan yàqalaate Aliou Cissé ren nga ñëw mu war laa marqué tëdd sa kanam foo kañ baax na waaye man incha allahu rabbi. moo leen fi sama kàddu jotee ci ci yi. ci campagne bi ah. campagne bi. dinaa leen di di di fa sama kàddu yem. bu leen xeex bu leen xuloo mm-hmm. ba ca des mooy benn milliard maanaam maire yi maire yi ngay waxal maire yi xamagu dara ak paa ñoom ay sabadoor lañ xam ay sabadoor bu dee maire yi ay waal lañ xam waal mm-hmm. nga ne leen nga leen yéen ay waal ak yi ngeen xam benn milliard bu ñu ko sampoon ci village danaan éliminer Vaal ak Khartoum benn jéeg dootu ko fa sol ñëpp ay GSNR ak i boroo de ngeen di sol dégg ngeen ko ñu ne waaw man leen mu ngeen fi santee ñaari milliards jéeg bu de dem marché di yóbbu di yóbbu di yóbbu mille francs wala mille cinq cent wala trois mille bu sa borom kër amee liggéey bu baax junni la lay jox na la weccet wu def jëlal léegi gars yi kenn yónnee ci ataaya joxe mille francs ku joxe ataaya mille francs da nga naan andil ma te mu naan laa andil ma te mu naan laa te mu naan laa andil ma six cent six six cent six cent soixante quinze. Eh, yow daal ni leen nag wër kër kër yi Touba yi ku ci nekk rek nga xamal ko lan mooy milliard. mba mbal ay mbalama ki ndondal ay mbalama ki ndondal ay ay ay ay ak i njaasaan ay njën sërëx ay nduuf. dig digal yooyu. ay kuufu mais mais loolu boo ko naree oh. campagne xanaa kon patriote yi ñoom euh, lañuy ñuy dajaleel Ousmane Sonko kon il faut ñu dajaleel la xaalis pour pour yow tamit. nga xam nga man dig dig maam jaara dig digal boobu. Hmm. damaa xam la fa ne. man Touba laa dëkk waaye sama cosaan foofa la. Hmm. dañuy bay ba dañuy day bay ba nawet di wàcc ñu am ñaari saakoy gerte segal benn bi xolli benn bi jiwu. Hmm. balaa taw tawaat. ngooñ ma nga utu leen say fas jeex yow li nga war na lekk bu jeex. Mhm. nit ñi nag boo leen xamale ne dëkk bii di nangam bu suñ borom dogalee ngeen am njiit lu baax dootoo fi gisate benn boroom kër di génn ndakaaru di dem ndakaaru di liggéey yi bàyyi leen fii ngeen ci ndum. Mhm, mhm. kon gone ya nekk ndakaaru dañuy bàyyi ndakaaru delluwaat seen tool bàyyi bàyyi ko. am na solo di bay mbayum noor di mbay mbayu nawet di am dara di jaay prix yu baax. ñii di ñi nga xam ngay dem bitim réew fas yéene faa def ay juróomi at seet bàyyi fii jabar jabar ji ne sëy si naa saa bokk